asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi nuyuwaat naa leen seen tur ak seen sant gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi ah di leen toggalaat fi seen Tambambalu show ah, di leen ko defal every Wednesday ak ah, Saturday fii si Gambian Talents promotion ñu leen koy defalo rek saa yi nekk rek am ñu toppa ñu seetaan ñu kontaan si loolu wax naa la bu yëg a koy fay te maa leen ginnaaw bëgga am nuñ dee defee Tambambalu show bi nag ku nga xamante ne suñu wee dinañ waxtaan ak moom dinañ yu baree bari comme ni ma leen ko dee waxee rek Tambambalu show bi kaf reera ak foo am tooguñ fi a pour xas kenn wala pour ŋàññe kenn wala pour wax ken lu kon xadi am dañ fi toog rek pour leeral pour jàngee si lu baree bari wax naa leen ne képp kuñ fi invite rek am suñu ñëwee di ngeen jëlee si moom lu baree bari di ngeen xamee si moom loo leen xamutoon dina leeral yu baree bari am Tambambalu show bi nag bu leen fàtte APS International Limited ñoo ko sponsor am ñu leen koy defal saa yi rek am comme ni ma leen ko de waxee bu leen fàtte APS International Limited ñoom ñi nga xamante ne ñoo dooleel programme bi pour ngeen mun koy. li foo leen munti nekk rek am tey nag ki ma leen fi indil am Dabakh Malick laa leen fi indil Dabakh Malick mi nga xamante na nag am nekka ndawi Gambia ah, di liggéey si réew mi lu am solo di fi def lu ama am solo tey moom laa fi indi rek am pour waxtaan ak moom fii nii si Gambian Talents Promotion si seen Tambambalu show ngeen toppañu rek am ñu xuus jaar si waxtaan bi waaye bala ñoo dem rek naa ko bàyyi mu nuyuwante ak askan bi

xëy na dina njëriñoo. parce que luñ dee wax rek mooy am na ñu toog si biti xëy na ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu ëpp jëf-jëf. Mm. waaye xëy na tey ñun la yàlla wasagal pour ñoo toog fi mu. Mm. kon ñu bari xëy na ñun ñoo gis xamuñu waaye yaakaar nañ ne balaa programme bi di xam lu bari suñu. waaw Ah, loolu am na solo ah mbokk yi ah Gaye rek nag ak nu ma ko dee defee saa yu nekk ah Gaye Njoro ñoom ak seenu am dafa bala rek xam nga ma introduce naa ñu kanaay dafa waaw man nag wax suma boppa daf ma dee jëfeñ trop trop trop trop waaye mm. mm. ah, bu ñoo mbanta. bantanki ki santian dëkk bi ak Seydou Diop ñoo bokk ak benn adresse moom ñu tudda Ibra Diop Ibra Diop ñu ko Kopi ki tudda Seydou Diop ñoom ñaar ñoom ñu liggéey ko fi ñëw Gambia waaye man suma li ma lay wax rek mooy ngi Santa man dan kiling foofu la juddoo foofu la yaroo ba bima am fourteen years la do so since then nag Serekunda moo nekk suma way waaye terewul ne suma cosaan suma askan suma everything mbanta la ba pare dama fa day dem regularly parce que foofu la jógee foofu la suma cosaan nekk waaw. ñanaay sa wajuri waaw ah, suma papa moom ngi tuda Modou Diadio suma ay ah, tuda Fatou sen suma papa papa ngi tuda Amad kooku papa mu ngi jógee kawoon soo demee kawoon si famille njaay bi ñoo wax tey ñoom ñoo nekk alkaali kawoon ñoom si famille boobu noonu lañ jógee hmm. ah, suma maamaati maam yaayam ah, seti burusin commando fen la doomi burusin commando fen moo ko jóg ok man ma bokk ak ñu bokk tamit ak famille mbegaan bi so originally ñun njaay lañ santa waaye ama ah, comme luñ dee rek sum namati mamɓe bo jogui sénégal kan? koɓɓe eh, fi naka kawol ñoo gambia njayla so deka buñ dalon kiko dalawon ko mo santa jabi so gari ko lan fayan jaay jabi jaay jabi dan do jabi do lam waaye original ñu njaay la ah original ñu njaay nga santa ah, ok santa amul solo daal léegi santa amul solo affaire bi jaaxalu na moom la laa laajte ndax nga wala olof nga waaye yëpp la yëpp la parce que suma maam bu loolu joolaa yi ñoo leen. waaw mënumaa daw joolaa bi sax parce que ki jur suma papa. Hmm. Sané la sant. Hmm. Sané xam nga voilà soo ñëpp benn la daal. dëgg la bàyyi naa non joolaa moom dégguma si dara xaw ma si. tus xaw ma aada bi xaw ma cosaan fana fana daal laa xam. soo déggoon joolaa ma laaj la joolaa. waaw ma ne ko fana fana fa ji mbombe moom mbirum tubaab fay noot. mbaa mbirum tubaab fay noot. ah loolu la kay même si dànk bi. dama bëgg a am daba ñu xuus rek am comme ni ñu ko waxee wax nga fi ngay jógee ko parce que balañ laa waxee nit war nañoo xam yow yaay soo dëkkee si dëkk ak yooyu na solo saa yu nekk ñu koy tàmbale rek pour ñu la xamutoon xamee la si ñu bari xam nga mun nañoo ne débat sénégalais la yooyu noonu waaye yow fii ngay di juddoo am na solo am ma bëgg naa laaj rek sa educational background ak yooyu noonu waaye man first Mangiduga School 1986. After suma ko Geneva School yow ma dara parce que naturally dara la bëggoon man ma so selama la ma punya dëkk bi ñoo am Medina Serigne Mass parce que suma wali yaay foofu la ngay jógee. waaw si alaji Aliou Ka mooy papi imam daati. pour mu jàngal ma alquran nekk na si loxo ko bu tuyes ma decide benn bés rek ne la maa ñëw si. dëgg loolu nekkul dëgër bopp sax waaye man su ma fasee ene pour def dara mm-hmm. bàyyi foos ma def su moo tax du ma dee gaaw a tëb ne damaa def nangam wala li laa bëgg a def non dama dee teg suma temps waaye su ma décidé ne li laa def dama ko dee def so ma jógee foofu noonu ma dox time bu maa ngi ri ma doxee Medina Serigne Mass ba génn bàttindi si kaw tali bi mm-hmm. fekka time bu suma benn oncle suma rak yaay la mu ngemee so moom moo ma ko fekka after mu laajte ma loxew ma ne ko na maa ma pourla ma ne ko dama bëgg am school mun waaye sopp ba daf lay si pour nga demal ma ne ko waaye mun na moom suñ mu ngi amee daara so mun naa dem school parce que ma waaj a ñëw si daara di jaar so bu ma ñëwee initially pa bi kontaanoo doon so si laa fa jógee ma dem dëgg suma kër maam man fi jur suma yaay parce que man suma yaay ak suma foo doomu bàjjen doomu yaay understand après suñ kër yi benn kër moo dox suñ suma jamono xale yaay si suma kër waaw toujours suma yaay so ma yang foofu ini initially xëy na sulung, toon si loolu parce que bëggoon na ma dem daara waaye mm-hmm. tamit suñ kër mu ngi amee daara xam mm-hmm. suma mag nyu bari ñu xam ñu mokkal si biir kër yi foofu noonu so mas start nag di dem school di dalam darah, waaye after semua performance primary school ini dia maa ngi perform tamit xam nga mu xam ne waaw dëgg mm-hmm. safta mu génne si si la accept support ma nekka di dem school ñoomi la min primary mooy so ɗanen before sumdeka is almost a kilometre from sumdeka so that dan hay sikonto dem jaagi waaca dem si tool yi xam nga dañu añee si tool yi wala simil ko uniforme bi si tool yi béy so laal nga ji ngooti ngooti man doomu béykat pire la su ma ko waa ki ko daawoon a béy ñoom ne amoon dawaa bëri yow mii sa loxo si nii mën nga moo si ñu dooñu béykat yi xam nañu ne ma i Hilaire Ngop so ma ko jëlee su ma la ko defalee nga <laughs> so 1994 laa si common entrance understand mm-hmm. so bu ma doon sit maa ngi sitaloon Bakote High mm-hmm. waaye ok yàlla def man balaa ma doon tabi parce mo time boobu noonu xam nga soo nekkee doomu béykat mm-hmm. ñoom béy bi la gars yi gënoon a farlal daan dem school bi parce que euh, lu tax mooy comme ñun especially góor yi ñun suñu responsabilité dimbalé suñu papa ya, yi xam nga si tool yi ak yoon so man dama lay doon a ñëw ut si school so balaa maa ñëw fekk ab baakote ay fees so after jaay na ma dem Sukuta so ma ne amul problème so ma dem Sukuta jënd na from 94 ba 97 ma si grade nine so ma am ñu sa ñu sa ay so ma demee sa ma def fa like first time ok before loolu ok bu ma cité grade 6 ma dem middle school so before loolu smoke ko waa gaañ right so suma ko waa mu man si suma waali yaay man ma nekk a taaw so ma si grade twelve grade nine ma war dem grade ten Man, dem ñu suma gars yi am doon ma start so after man difficulties of high school fees so man am two options either mm-hmm. man drop out by school then uti liggéey liggéey pour suma rakk yi continue school or

suñ la yóbboo agal te tamit soo bugg a jàng doo jàng su ñu dama school bi amut solo li ya, am solo mooy yow li nga bëgg sa boobal so mën a ko ok ya, amul problème so mu ne ma waaye nag nga ñëw isoo si parce que comme public school la après eh, cost of schooling bi it's not that much expensive foog naa mooy mooy tane ba pare di nga dëkk fii tam si kër gi xam nga doo fay luwaa si kër gi nga am so dama decide ma dem so ma def suma high school isoo si graduate 2000. Um, so bima neka grade 9, grade 12. su ma uncle boobu noonu tamit mu gaañu. Mm-hmm. xam nga so léegi moom bi moo gaañu fekk man ak suma yaay ak suma rakk yi ak moom doomam bi ak jabaram bi ma nekk si yàlla def by default man maa mag si famille bi yëpp so at that age fekk ma am nineteen years bi dugga so ma assume responsibility nekk borom kër. amoo kenn ku nga xam ne tey mun naa dem taxaw la. waaw moo ñëw dundal wala moo ñëw dundal sax su si kër gi foofu noonu. yàlla def tamit ma am waajur ak moom dafa am seen bopp liggéey ba pare xam nga sonal nekkul koo xam ne dina sonal doomam dara si àdduna ba tey fu ma waxee lépp nga xam ne nii jot na ko si man man toog rek. ma jënda ko jox waaye su ma ko tàggoo sax du ko nangu parce que moom du nit ku gom yëfi àll parce que ma dewa ko yow sax mooy nit ki fu mu jaar nga gëm sa boppa nga déggu ba pare nga mos coono so ma jeexalee ya, ak difficulties su noonu yëpp so ma man ma xam ne man tout options laa am mm-hmm. su ma bëggee génnee suma family si ñaaka buñ nekka ma jaar man so su commencé nag di liggéey def naa baaraam ni naka def so many things pour mën a dajale xaalis suma so noonu laa def ma feyal suma bopp ma dem tuut ma satisfied academy technicien ma start ACC def time M1 M2 la ma start M1 M2 bi waaye continuer because of it was expensive ba pare maa ngi fifteen xale yoo xam ne su ma rakkee ak su doon ñoom maa leen war a fayal school fees hmm. so ma xam ne loolu du demee so ma ne ok xaaral ma def diplôme diplôme ma def time boobu noonu yëpp uh, it was difficult pour nga am liggéey tamit. parce que dafa am fi dama fi soona. <laughs> dama daan toog guddi bi dafa def application xëy suba drop gars one by one <laughs> xam nga. kenn doo dégg cause sa bila li ma la wax sama anti loolu la ma daan wax moom dafa eewu suba guddi la de binda moo daan hundred yi maa ngi su paree moom tam di dugga office to office mu ne ben kool doo ko dégg non billahi yàlla xam na loolu xam nga waaye man dama yàgga like reading so dama daan xëy suba su de desee ten dalasi sax mm-hmm. ou five dalasi time ma foog naa newspaper five dalasi la ma seven dalasi mm-hmm. dinaa dem ma jënda paper so ma dem news, newspaper ma ñëw kër xam nga mu toog read after ma ci ba benn vacance ma benn boy ma ne ma boy apply ma ne ko yow dama feebar ma ne ko wax nga ma ñaari application laa bi ma ne ko fu mu nekk man dama discourage mana san léegi lu ma desire moo nekk laaj ok comme man suma papa béy la xamoon dama mana ma dem béy ma dem nekk agriculture ma dem agriculture ma ma ne ah boy trial rek yàlla du lay xam so ma binda then the line ñoo def ñoo advise advertise on vacancy boobu so ma apply mo di Dulaay mu ngi nekk ci ba nga Africell fu gaa nekk. Africell sen customer care bi fofu la di ne won di nekkoon mo ne kon si ko so ma dem ma drop ko wa tay boobu man sa amu mobile understand so ma ba mel ak kodoo laa defoon dama mobile am yaa nga ndeysaan moo dem gaa ko so ma dem jamono bobu non suma hayan suba suma yaay wala suma mam mo wala may xaal so because gaaje bobu non mo taxon après man ma maa ngi sun kër mo jena sun kër suma dara xarit boy on over three four years ma fanaan suñu kër because dama lay ruus trop ma hay suba instead man mo wala jox suma yaay suma yaay mo wala so ci période bobu non tamit duga ganasi lu bari because of stress mm -hmm. am na yu bari yu ma def yoo xam ne na. wàllum toog beeg. non gains. gains phone. so many things because of frustration. Mm-hmm. xam nga ak ak mer. Mm-hmm. mer ne you know am nga mbokk yoo xam ne war na la nit ñi war nañ laa mën a dimbale comme ay nijaay ay fan waaye. Mm-hmm. pare wuñ pour dimbale xam nga ma jaar si loolu jaar si loolu dem ba su ma dëji oncle bi nag loolu moo ma ceeb. bu gaañoo nit yi ñu ngi man jooyoo mm-hmm. man su ma jooy bi si guddi la te lu tax ma jooy mooy dama xam kooku fu mu taxawoon si man suma yaay parce que ñu bari dañ foog na sax man moo ma jur mm-hmm. waaye fekk jurul ma moo suma yaay ma boo xam ne yaa daf ma téye comme doom waaw exactement so su noonu lañ nekka nekka su loolu nekka su loolu noonu moom mm-hmm. nit wax lu bari ngarek rek gambie jamono boobu noonu ba léegi nii sa soo waree lee nga xale nga jóg nga ne da ngaa leen dëgg soo nit lu bari lañ dee xalaat waaye fekk nit yi xamuñ lu tax man ma def loolu parce que man dama yàggaa gom independence like financially man dama war a independence waruma wéeru pour survive naturally loolu man loolu moom si loolu la ma suma ko yar te suma yaay tam si loolu la ma yar moo ba léegi man mënumaa ñaan kenn du musa taxaw gàmbe ba gàmbe dëkk mu taxaw ak jamono bi soona nga dama kool suma yaay mu defaral ma fana fana yi xam ne dañu waaye kankataan hmm. bu amul laala ma di ko weer suma néeg muy wow suma xiifee ma xooj ko lekka boole ñu nekka si loolu nekka si loolu ba gars yi oma non na ñu la fi kool hmm. waaye moom dafa fàtte turi compagnie so te man li ma drop si application mënu ma naka la tool Sumasta dihalat dihalat dihalat tangga. After hmm. hmm. ya, hmm. mana koro bidang ngarek. Koro bidang depan jalan orang. Kayak ngarek. Manda ma musa am fit si nyari ñaari affaire mo ko musa gom. Man dama gom yala be gom So dama de gom ne leppal wara am rek yala bina na ko ken mënu ci dara. Lu warta am tamit suma yaay bi ma jur sa so mo man yu bari duma de soan suma So, aku happune man alhamdulillah Aku happune tam alhamdulillah suñu toog bee ay boori twelve si guddi fekk ñu ngay xiin mu ne ma waa foog naa di di ma ne ko non di la ma ah te dawoo su sunde ba pare monde laa war a dem interview so ma xëy bi maa dem tëddi noonu yàlla xam na ne amee ma xaalis daa moom loolu mu ma fekk ak baala so ma ñëw suba teel foos feri ma doy feri feri ma baas so ma ñëw bàyyi ma ñaan di xam nga ma loolu suy gars drop ma coopérative ma dox dem affiche aga tamit you know so man dama foogoon ne interview la parce que man loolu laa prepare suma boobu ma aga gars yi ne nga am test so ma dem waaw ma def ñu def test bi ba pare lu ma njëkk a discourage sax mooy parce que five people la gars yi soxla lu ma fa fekk si nit bu naga statuti sama koog waaye xam nga rek still ma believe ne ok su ah. nekkee ne qualification la ak am xam-xam bi mu fa waaye xam nga jamono boobu noonu Gambia affaire connections la koo xam. Mm-hmm. parce que nekkul ne place yi mu doon apply job nekkul ne qualifié ko nekkul ne aw ma xam-xam nga foog ne jamono boobu la ba léegi sax Gambia bi not what loolu nag bokk na si lu ñu tardé parce que man ut naa scholarship sa événement boo xam ne dem naa si ba volontaire ok bu ama xaaral ma wala beneen si bu bu ministry of education after ma wutee liggéey ba sona mm-hmm. so dama sonoon rek si xëy suba toog so ma dem ministry of education pour pour. volunteer teaching pour xam nga hay suba rek engagement suma en santé so ma aga ma won waji suma kon certificate ci so ko ko ne ma dama over qualify pour nekka volunteer teaching so it's better lu ma advice moy wala ne ma tuye dama ko hol rek mo joy am nga dama ne ko man dama def lu nekk ok bugguma hay suba rek ma toog dama bugg a xëy suba ma engagement suma boobu xam nga on something but mu bañ so after I'm ma continué ma dem so yàlla def after dem ñëw bi ma luckily ma am divide job bi. as lan. as euh, xam nga time boobu ñu project, bu global fund ak HAB HIV and HIV response projet. Mm-hmm. so Deloitte ñoo amoon di financial management side. Mm-hmm. so man team boobu noonu laa bokkoon ñi nga xam ne ñoo doon manage nekkoon naa divisional accountant for almost all the regions in Gambia fu nekk dem naa fa. Hmm. so liggéey naa fa four five years. Hmm. then after ma bu projet bi enee so man décidé ma pour continuer dama bàyyi so man ma bàyyi. fekkaloo yaakaar xaalis baa ngi bari woon ren. non amoon xaalis jamono boobu noonu sax parce que lu tax mënuma woon a am xaalis jamono boobu mooy. Hmm. jamono boobu noonu ñu wéeru woon si man pour jàngaat dundaat. from Wow, understand. So Halis Bumadon Fair was good because I was definitely paid very well. jamono Bumunon, -hmm. compared to man at, at salary bi time Bumunon, mm. Gambia. because time Bumunon, noonu ku laa wax six thousand seven thousand dollars around two thousand and one two thousand and two three four. Mm. bariwutoo mm. waaye man li ma dee wax rek xaalis soxla ma si mm-hmm. ah, so bàyyi bi mooy man dama like de jël challenge ñu ma xam ñëpp moo tax soo xoolee suma carrière place bi ma liggéey dafa bëri parce man dama dee like pour try lu bees so daf fële dama dem ba fii like ne yaaga naa fa soo def naa soo ma ooyoon guddi sax maa ngi nelaw sax soo ma laajee lu ma war a def léegi suba xam naa mm. so pour man amaatul challenge so it's not about di money nekkut xaalis bi waaye jamono bu man dama gëm ne dama toll si jamono pour jànga te du ma mun a jànga suma ma bëggee toppa affaire xaalis so su laa ba pare xëy na suñu form reliance moom moo nekkoon suma immediate supervisor time ma nekkan fi like so ñu mu vaale foofu noonu so gars yóbbu ma baara baara seen branch bu nekk foofu noonu man ñoo ko initié man maa benn booy Amadou Ndiaye ñoo fa nekkoon ñoo taxawal branch boobu noonu doon taxaw naa doon start operations after foofu tam one year ma bàyyi ma bàyyi because of boobu moom nekkul dama bàyyi because of job bi amoon challenge dama because suma personal reasons si suma sumadene be dega muno tutwa do so mana nfe ni am sa ni wakoto Si man suma der at suma tur mama dina téméri bi ne ma tele ne jamono bobu gis na lo xamne mu ngi dox te jaarut yoon mau wax ko ki nga xamne man mo nekk suma so mana mana mau foto di ko féré ma resign ma decide pour resign man déjà def pour resign fekk wax naa ko ki ma doon liggéeyal moom ne ma ko ko so yàlla def man balaa maa bind resignation bi kon dégg bu ma ko wane si laay bàyyi il faut loolu gars man ko pour set up ma euh, ma yee suba gars yi xaalis bu ma after dama réer la benn xaalis bu ma dem nañ ngeen laajte diw suñu ubbi Reliance la bokk ak ko ndax alal yi jàmbur naa parce que kooku xam na ko moo nekkoon suma sa time maa nekka Deloitte Deloitte waxuma la dalasi millions in dollars dañ doon contrôle su ma bëggoon a nekka multimillionnaire fekk nekka naa ko parce que jamono moom gis naa lu nekk som temptation bu nekka gis naa ko tegal na ma kër saka nga jógee si situation bi nga jógee ak yooyu noonu yaa ngi xam nga affaire saa ngi stress nga nekk foofu gis xaalis yu bari yooyu noonu. mosuloo see try pour boycott sa wala ñëw nii daba. man du ma la alal jàmm yàlla xam na loolu. gis nga lu nekkul suma rek. maa ngi yab si Facebook lay wax ni ñu ma liggéeyal ñëpp dinañ la wax leen moom dama am principles man ko dama naa regret parce que xuloo naa ak managing director yu bari.

kon xaalis ñaanuma yàlla ma am xaalis denc ko si banque ma gis nit yi di sonn every day loolu du ko def ñaari affaire man dama ko dee ñaan yàlla su julee yàlla su ma may xaalis ma di ko denc si banque muy nekk ay million may ew suba di gis doomi aadama di sonn yàlla bu ma am yàlla su naree bés bu ma xëyee suba ma jóg ma ne jóg pour dem def suma doomi lu bon ma yàlla ma loolu lu ma gom la te saa yu ma julee suma waxtu juróom bu nekkat dinaa ko ñaan yàlla mbokk yi ah, yéen a ko dégg nit ku nekk sa góom-góom ak say jaar-jaar da wax na góom-góomam ak jaar-jaaram am te ku nekk ah, ñu ne olof Njaay mu ne xacca bu dogul rek am dina egg du soobee yàlla te affaire bi nu ma ko dee waxee gëm sa boppam mooy lépp bala ngaa wax ne naka la tuddaati man may kan dafa fekk nga jëkk a gëm sa boppa bala ngaa liggéey ak si loo munta dugg rek soo gëmee sa boppa di nga dem ak ah, bu leen fàtte ne yéen a ngi seetaan seen Tambambalu show sponsor by APS International Limited ak ah, ñu génn leen a xamee si approuve service approuve service nag am comme ni ma leen ko waxee rek am weeri koor bi nii ñëw nañ pour yombalal am ñi nga xamante ne ñu ngi Europe am ak foo munti nekk rek am dañ am service bi nga xamante ne dañ koy def pour dimbale jàkka yi ak juma yi am comme ni ma leen ko waxee woon laas wi rek am juma yi ak jàkka yi am time weeri bi nit yi dañ fa dee nekk di jaamu yàlla di xam nga di jàng ay alquran ak ay yooyu noonu xam nga te light bi daf tee dem ak yooyu noonu léegoo léegi light système bi baaxul wala gas power bi jeex na soo soo nekkee nag Europe wala foo ti nekka soo amee ten pounds ten dollar ten euro boo si mun munti am rek mun ngaa toog foofu noonu am nga jëndal ah, jumaa bu la neex rek. kas ah, kaspawa middle number bi rek lañ soxla am su ko defee gars yi dinañ la ko senal ak fu mu mën di doon rek kon nag seeti leen APS International Limited loolu am na solo daba ñu puus jaar si waxtaan bi am fi ngay jaar suñ ko naree wax fii ba ëllëg sax du jeex because luñ war a waxtaanee tamit ah, pare na ah, am na yeneen yu am am solo yu yu passé ak sa jaar jaar ak yooyu noonu parce que fi mu nekk nii passé nga jaar jaar bi métti yooyu noonu xam nga abis right now ni alhamdulillah, yaa ngi am loo suturu te yaa ngi teg sa famille si jàmm loolu sante yàlla la ku nekk loolu laay mébét so ma laa wax ne congrat rek ah, jàmbaar nga li fi nettali ni ah, ku amul jom konoon te time bi fekk na nga gifo bu yàgga waaye still yaa ngi si kawam non du du jom sa yàlla la rek ak am naa ne waajur tamit nekka moo tax dama ko nee every time donc mm-hmm. bu la kenn ak sëriñ moom mën di doon lu hmm. ma laa wax ni man maa ko wax hmm. waxuma ne sëriñ amul de ba mu moom man lu dem sukka jébalu si roon kenn hmm. moom ba gaañu na waaye suma yaay mooy dunda suma yaay ma def si kaw ma dem moom lu parce que suma yaay su may mën ta ñaanal mu nangu gisuma benn doomi aadama si kaw suuf loolu laa gëm dunda ku nekk nag loo gëm moom mun nga ko gëm waaye nit mënul kenn doom doom doomi adama soo buggee li nga am mu barke parce que am wërsëg ak ak barke du benn mm-hmm. respectal sax waajur ba pare nga mm-hmm. liggéey jomee si ñoom mm-hmm. nga am seen gërmande balaa ñoo génn adama finis leneen lu si des bul am xol bu tilim pour doomi adama yeneen nit yëpp jaamu once nga def noonu rek man dama yaakaar ne loo yóotu ñëwut rek xamal ne nekkul sa wërsëg waaye lu nekk sa wërsëg foo ko xaajee nga teg sa loxo dina ñëw. Mm-hmm. loolu am solo da baax li nga wax noonu am solo loolu parce que soo amee ñaari waajur rek yow sakka o sakka maam jarut ngay dem di ah, bala ngaa respect yaay jàmbur wala dem si sëriñ yi loolu tam am solo lool soo respecté sa parents rek da ngay dem loolu moom téere la boobu téere boppam la nga baaraam sa tukki. waaw West Africa fii la na place bari ba ren yàlla def ma dem Amérique waaye tukki moom mos na nekk lu ma sonal si Quran léegi place nga dem moom noonu tukki bi kompetisi ko ubbi ci woon waaw waaw compétition la rek dañ ko def Afrika yëpp am ki ma ko yónnee muy Xadijatu Tàmbale moom ma ko yónnee woon pour ma apply parce que man xamoo woon affaire yi compétition ko ma def ma bokk ñu qualifier ko dem finance so de si sarta yi moo nekk nag da nga war a dem foofu noonu nga li nga so ma dem ma apply visa am um, for the first time parce que man dama bayon dem si embassy di 2006 ñaari yoon laa musa dem embassy 2005 2006 since then after must stop so ma lima ma war orang ko di war naa ko mën a am après loolu après tamit bu ma waxtaanee ak suma yàlla soo moo tax man maa suma yàlla am xam xam comme le français de complicité we are very very close parce que dafa am lu bëri lu ma wax lu nga xam ne ni ko dama ko gis so sila laa dem after dégg nga ñoom mayoon nañ ma fayaf waaye ma dem ma toog woon ma ma ñu parce que loolu moom fa loolu suma boy nekk si gëmuñu woon ne su ma bi nga demee parce que ñu bari dañ doon wax ne soo demee doo ñib si yaa ngi yaagaa ut tukki yaa ngi yaagaa yaa ngi yaagaa loolu ñu ma ñaaka xam la ñu bari ne dabaax su demee du ñib si ñu ma ñaaka xam la li tax nit dem si embassy mu may la visa man teel laa mutal loolu bu yàgg parce yoon laa dem embassy ñu reject ma ñu bindal ma si kayit li tax ñu rëjee ma ma work on ne bés ni ki tey dem Amérique wala ñaaka dem Amérique dem Europe wala ñaaka dem Europe li maa ut su nekkee ne moo gën si man yàlla dina ma ko defal man su nekkee Gambia fii laa tudd so man am naa mag yu bari yu nekk ak yow su ma buggee invitation ëllëg ëllëg ëllëg ma am te xam naa ne embassy bu ma dem taxaw yàlla def na ne gëm naa ne dinañ ma jox parce que condition su tax ñu war laa jox visa am si que maa liggéey te. li ma nekk di waaye loolu du wax bi xam nga li wax bi mooy. te dem xam nga li wax bi mooy nit dañ la xool ñu xam ba pare xool sa situation situation si bopp parce que man maa ngi job job boo xam ne na ma ne du ma ko bàyyi fii ne damaa dem toog Amérique jaralu ma ko sax understand ba pare xam nit soo ko xamul di nga xalaat lu bari si moom waaye ñi nga xam ne ñoom xam nañ ma nañ la wax ne soo ñooñu soo leen tegaloon million sax nañ la wax ne du ma toog. parce que xam naa ne man li ma mën a am Gambia mënu ma koo am si biti. yow ban job nga mën a am Gambia bu nga xamante ne soo demee si biti mënuloo ko fa am. damaa bi job bi job man fii laa toog demoo fenn. waaw hmm? ma fi kër. Hmm. ay kër sa laay wax. Hmm, macha allah. yàlla fi business. mu commencé fii. ma dem ba business bi grow dem ba dem Mali dem Guinée Bissau. so lan moo tax man ma war a bàyyi loolu fii man damaa dem toog Amérique di la explorer restaurant du ma ko def wala di jaay understand so nit ku nekk xam nga du du du xaalis bi waaye barke bi man dama gëm ne fii la nekk fii la ma ko yàlla defal. Mhm. keneen nag mun naa dem kooku wërsagam Amérique la nekk mu dem Amérique ba man li ma gëm mooy su ma wërsag fii la nekk parce que lépp lu ma am si ko suuf Gambia fii la ko amee. génn ko du mhm. jàng même yi di ba su ma digri sax Gambia fii la ko amee musuma dem fen ba three months ago ma demee Amérique mooy first time loolu lañ de wax ni tukki tekki ñàkk a tukki tekki affaire sa bopp rek la bala ngaa laajte lan nga lan la ma suma dikka defal yow lan nga defal sa dikka loolu tamit am na solo lool lool lool lool ba luy nit di wax lu nekk dafa am foo ko war a teg tamit am Daba sa wàllum business ban business ngay yëngu taa yi fu mu toll nii. man dama juddu si famille fekk suma ko nekk am béykat. Mm-hmm. ba parce que ku xam suma ko lu ko ñëw. ñaari affaire nga ko ñetti affaire nga ko am fos moy dina alquran kon jaar jaaralo alquran ak farlu si dina bi ñaar moy nek ab béykat nek ab béykat bu mag ñetteel bi moy business parce que jamono NTC hmm. nekkoon na agent pour NTC boo ko économie hmm. so automatically da nga judd situation boobu noonu dañ la do doo yeneen ni ko def do xam njëriñ bi bon di nga start di land trade from that level suma uncle tan mala wane moom moo ñu ana woon ba suma papa gaañ moom moo nekkoon agent of NDC in Bar so mom he was also a very successful business guy te demul school like demul conventional school arab la jaar ma nekk si you know sometimes ma ana moom dem si sobi, bi mu fajar ma fa jàlla dem baa ñu jëli ma sama ma nekk di room business so through that start di am um, that feeling of entrepreneurship waaye li ma si gën a dugal. Mhm. mooy comme ni ma la wax rek man dama yaaga bugg a nekk nit ku indépendant gis nga man liggéey nii sax. tos mhm. mi dama ko daan def rek waaye ñaaka pexe la mhm. lu ma gën a bañ si suma life mooy ma gis li nga xam ne moo nekk dëgg ma war ko wax te ma ko wala ma wax ko si am doole pour def so moo tax soo demee nga ma doon liggéeyal yëpp mën naa laa jot tur place liggéey naa ban PhD mën nga dem nga laajte staff si nañ la wax loolu. su nekké amna kuy taxaw challenge MD ya, eh, kan ya, man wala parce que man neewu nekkul ko support so mo tax ñu bari xëy suñ la xamuté dinañ xalaat lu bari dinañ toog parce que dama lay dégg wax yu dama parce que ma di nga xamné man duma nit ku ragal té duma nit ku xeeb suma boppa tamit té duma nit ku tam nit di xol di la yépp parce que man du ma kenn du ma kenn waaye tam kenn ak nga so moo tax man dama fight especially junior staff mo da place ma jaar yeb suma ma ba disaani na ma bay da nga ne dëj mo te be léegi suma fa demee dangaa ca ci naay di no da nga wara trip la so am lu happen in 2014 waaye loolu duma ko wax parce que boromam wax ko dafa non non non su ko waxee dinaa tuddal non su ko waxee dinaa tuddal turi nit tuddal tuddal turi tuddal mu leer fàtte no non fàtte no loolu non non du ragal non yàlla daf dee bëgg a sut ko xam lépp wax lépp baaxul. déedéet waaye lii xam nga dañoo leeral rek waxtaan. ma dafa am lu ma nit def. in 2014 mm. lu ma. dama fel ne dama fel ne laay daf ma téye comme xale la. Mm. te ma xalaat ne xëy na mi ngi xamul ma waaye xëy na xale bu mu foog ne loolu laa nekk moom la <laughs> ah ma décide ne ok léegi bàyyi naa liggéeyal nit. Mm-hmm. 2014 ma ne bàyyi naa liggéeyal du ma mos a liggéeyalaati léegi si kaw suuf fekk maa ngi dund. si mhm. dama dem nekk ab béykat wala ma créé suma own thing waaye du ma léegi loolu la 2014 la rek. dama amoon non waaw dama amoon benn non man maa toog ma decide. waaw dama def non dafa am ma nit def. Mhm. so ma toog ma decide ma ne dama bàyyi everything so ma call. lu la nit def boobu ba nga bàyyi dabax mënuñu ko. non loolu du ko wax dinaa maybe si kanam si àdduna si kanam waaye du léegi. parce que mm. man xam nga rek su ma nit. Mm. man la dal waa dëgg la naxari na ma woon waaye foofu kom na ko parce que man lu ma dee wax rek lu nekk rek. jégal nga ko so ma decide to go into entrepreneurship am na Gambien su ma waxtaanal waaye nga time boobu gëmuñu suma ay jéem ma wala maybe sax dañ ma xeeb parce que am nga Gambien dafa yàgg a xeeb nit fekk defuloo demuloo si biti nga toj fa sa célébrer la so ñewul Gambia duñ la célébrer mm. so xëy nañu bari suma la lu luma la doon wax ñu ko gom so way mo tan nit ci man lu ma rek fo nekk rek build that relationship ak doomu aadama mos naa liggéey si benn ci ko ko for like seven yes so ma mon fa very good relationship ak benn Sénégal ñu dem to the point ne comme like da ngaa foog ma nga mm-hmm. so ma sen ko informé ma ne ko man tegal ma li la bu bëgg def nga advice mo murid ko xam nga su guddi bu mu koor ma mu ne ma dëgg dëgg dëgg da ko bëgg def ma ne ko billaahi bëgg naa ko mu ne ma ay soo ma ne ko eh? nag waaye am xaalis waaye am naa xam-xam am naa doole te gëm naa ne lii lu war a mun a nekk mm-hmm. ma ne ko te yow xam nga ma su ma la ne lii mun naa koo def rek xam nga ne naa ko def mu ne ma ok léegi garaaw naa la jox thirty five thousand yëpp gastal ma ne ko

dawal dem ba su ma amee prime ma dem ada ñoom ay dara karaala time bu suma soni gaa ngi nekk si boori cool bi fi trust awal lumah print internet tadi yooyu parce que kamu boobu hari sabtu def set office parce mm-hmm. que man suma aduna dama gom ne nit da start tuuti nga grow wax gaa benn bi daf def nga start big moo tax dañoo grow small on a sa da start ñëpp wax sa in three four years time nga dem down because of lu tax nga starté is too huge mm-hmm. so ma starté noonu dem round xam nga kirim karam dem jamono boobu noonu fekk bu ma bàyyi suma liggéey nag plan naa suma boobu parce que suma yaay dunda am yàlla def na ne si man la ko yàlla teg mm-hmm. su def lu nga xam ne óor na ma ne su ma toogoon fuul ak sa liggéeyu ma suma famille duñu am problème parce que man awma problème man mun naa lekka mburu ponse sax def ko añ I don't su ma yaay eh, am na ko mën wala su feebaree xam so am na yeneen rakka tamit yoo xam ne tamit ñu ngi liggéey dinañ eh, soppootante man li nga xam ne nii moom war suma diggante ak moom du ma nangu kenn mu defal ko xam so ñu dem nine months amuñ business dara amul after mu ne ma gis nga dama la waxoon ne ñu starté Mali ñu ñëw Gambie ma foog ñu dem Mali ma ko non Gambie fii ma ko man fii laa dëkk fii la ko dama bëgg trop hmm. so september 2014 yàlla def ñu am benn contract mm-hmm. xam nga ñu starté waaye fekka bi boo loolu dama dem ma recruit ñoo xam ne xam naa leen parce que xam naa leen démb bi foo tey mm-hmm. ma wax tamit lu taxaw mooy ne lii du affaire kii moo ko moom kii moo ko moom wala affaire yi boos non mm-hmm. lii pour ñun ñëpp la su demee kanam ñun ñëpp dañu war a gis suñu bopp si dem kanam loolu su nekkee naruta am yàlla mu yàlla taal business wala nga nit ki looy looy wax rek su ko gomut am na nga xam ne doo def so bu ñu starté ñu nekka di dem di dem fekka ñun tout la woon ñoo start force man la kenn la woon man da soo xoolee suñu business registré ba léegi sax suma adresse yi kër yi moo ma la after moom mu bàyyi liggéeyam mu ñëw joxe la ñu nekk after ñu xamaat keneen mu nekk ak Namarkin in Manila for mm. the day, Alhamdulillah, near about 19 people in Gambia, over 40 something people in Mali. And ehm, Guinea Bissau very soon, already registered and already very soon, office bill identify number. But stop before I can know So it's just a matter of the hardware recovery pattern and set up everything and then build up a team. So he nega sudul wat, dem dem dem dem dem, muy grow, mu am parce que man lu business ñaari atal moo ko yóbbu xam li nga bëgg def ba pare nga am discipline si li nga def especially financial discipline jamono boobu noonu man dama bàyyi salary thirty five thousand dollars ma ñëw man toog nine months aw salary business bi fayal ma salary business bi mu commencé di néeg xaalis man doon fayal ko thousand five hundred dollars def naa ko almost eight months nine months boo xam ne thousand five hundred dollars laa dee fay sama ma jógee thousand five hundred dollars ma dem five thousand. xam hmm. nga ba du loolu ba léegi damaa non ba léegi man damaa feeku salari non xaalis amul de man damaa feeku salari ok man suma xaalis man maa ko moom comme lu nga xam ne lañ ma ko fay man damaa feeku salari comme mboolem staff bu nekk foofu ma feekoo salari amut like ma am soxla dem ci banque mi ne damaa withdraw hat non. ah kon business bi ëllëg mu collapse. déedéet rek waaye ba léegi rek am nga xaalis. non aw ma xaalis yàlla xam nga ben amul benn banque booy doog biir Gambie fii non xaaral ma expliqué la amul ben bank xaalis su doon wax ñu bari dama la ko wax. soko ko nga ñew ma jox la fifty dollars dama nga war bank yi Gambie yëpp la wax ne am saving account. man buma ma dee ama ama saving account ama am naa daal lu barke mooy ne yàlla may na ma leen mooy ne hmm. mboolem soxla bu ma mus am si kaw àdduna yàlla jox na ma lu ma ko mën a faj kon kay wala yàlla isin la ma nit ku ma ko fajal. parce que lu bari man am naa ko si àdduna du man maa ko liggéey sax nit moom ma xool yëkkati ko ne ma am. Mm. na defaloon naa ko fii ba boo xam ne ay ten years ago man fàtte woon naa loolu sax mu ñëw mu ne ma ne diw mu ne ma jox la naagam ma ne ko diw ban mu kii wala li ko léegi nit def la dara yow nga jégal yàlla ñëw feye la ko leneen xam nga ne so man exemple yooyu noonu dina na ko comme def ma lu garaaw ba nit yëpp foog na lu nekk moom ma ñëw ma ne la jégal ma xam waaye xaalis moom aw ma ko waaye sant naa yàlla am nga ko xaalis duy wax ñu fi am xaalis yëpp nanguwuñ ne dañ am xaalis ah, waaw xam dañ bu xaalis de am xaalis sax naan la aw ma xaalis ñoom

bokkuñ woon ci affaire yi politique ak yooyu yaa doon maay sa gis ak yooyu xam nga temps boobu da nga binda da nga binda si social media waaye da nga dee pick and choose da baax non mooy comme li la waxee dama ne da nga dee pick and waaw dëgg la xam nga da nga dee waaye léegi nag li nga binda da nga binda def toog def live xam nga xam nga nit luñ fi doon nastaan si jamono boobu moo tax man ñi dee toog di wax ne ñii duñ daan wax taam yaa man dama dem ne ñu naa feexale parce que même politicien si du Ousseynou Dabo du Khalifa Sall du ñi ñi ñëpp am na luñ mënoon def confronté yaa jël la durante moom defuñ ko lu tax defuñ ko pour seen bakkan ak seen bakkan yi njaboot man san soo nit ku nekka doo dem nga xaru man du ma jox suma bakkan kenn mu óor ma ne lii suma ko defee ma dee ma leen def ku ma du ma ko def du ko def pour suma boppa du ma ko def pour suma yaay du ma ko def pour gànde parce que su ma xaroo ma dem si yàlla suma yaay du ko génne suma ko war du ko génne am na loo xam ne soo ko defee xaru la tey ku nekk xam na nguur bu fi nekkoon naka la daan dundee man dañ fi daan jël nit nga wax fi dara tey ñu jël la man su ma faatee am na ñu ñu dañ ne ñu bari xamuñ moo tax dama dem nit ki soo ko xamul. moo tax ma ne la ne danga daan bind waaye danga daan pick choose loolu moom pour sacrifice ma bu non ba léegi government bi sax nguur bi sax du ma wax nguur bi dara lu nga xam ne nii lu manqué respect la comme loo xam ne ñi ma ko woon a wax yaay jënd ñi ma ñu ko wax aadama parce que yaramuñu ma si. léegi yow soo doon compter former government bi naka nga gisee former government bi ak government bi. non nguur gi nii moo gën moo gën si wàllu doxalin. Mhm. moo gën si may askan bi seen jaama ñu am freedom pour wax lu leen ne. Mhm. waaye in terms of jëfandikoo xaalis si nguur bi. Mhm. nguur bi ak nguur bële man gisuma différence bu bari bu baax. parce que government bële am na ñu fa nekkoon ñu korop government bi itam am na ñu fa nekkoon ñu korop. so pour ñu génne nag si loolu moom. responsibility nguur gi la ak doomi Gambien si tam ko ñu def ko waaye mm-hmm. si doxalin pour compia moom nguur bele ak nguur bi doo leen mën a compia parce que nguur bele na lee moy li mo dé waré man am na lu bari lu baax luñ def parce que nit ki tamit loko bañ bañ bañ mm-hmm. da nga nangu li nga am na def na ko parce que ya mm-hmm. jame ak lo mun di wax dafa marqué history Gambia té lolu kenn mënu ko jël mën naa wax lu nekk nak li rom tam lim def Mm-hmm. dañoo waa dañoo accepté ne tamit def na lu romb lu noonu waaye man du ma ni ku nekkuma hypocrite ba di condemné di all out right parce que mm-hmm. Firawna moo gën a bon yaayam mm-hmm. waa yàlla sax wax nañu si history Firawna jamono bi nga xam ne ni cër bu mu joxoon yaayam ak cër bu mu jox ba nga xam ne ni añi yaayam kenn du ko yóbbu moom moo ko enu yóbbu xam nga yàlla tam ñëw woon ñu ne su daan lekka ba lekka bi tuur sax daf ko dee for ngir xorma bu mu jox moo gën a yées lépp lu yàlla bi nag mm-hmm. so man façon nit boobu noonu laa soo defee mistake dinaa nangu ne kii lu mu def lu wrong la waaye tamit su ma gisee tam lu baax si yow damaa wax ne lii lu baax la so nguur boobu noonu ak nguur bii duñ leen mën a compter parce que nguur bële mm-hmm. si indi ni nguur bi beginning bi mu ngi doon dem normal waaye mm-hmm. towards the end last ten years yi nu mu doon doxalee ma ne nguur war naa doxee noonu loolu tamit nguur bi tam lu si lu si. gaaw a bi naka nga gisee ñoom seen force two years yi parce que loolu aussi ñu ngi two years yi. non nguur bi man indi naa la ñuy succeed waaye pour ñuy succeed dafa difficile. Mm, naka la nga ne dafa difficile. parce que ñu war Adama Barrow yëpp dañ soog a toogu Adama Barrow toog so ñooñu kenn du fa def loo xam ne ni luy Adama luy tax Adama Barrow am ndam xam nga nañ bàyyi waxante naxante bi. Mm-hmm. Mm-hmm. que looy daaba dafa soxla toogu ba Adama Barrow toog. Mm-hmm. Ojo Jallow dafa soxla toogu boobu noonu Amat Ba daf ko soxla May Fadi daf ko soxla so ñooñu noonu ñëpp kenn du si def lu nga xam ne nii tey luy jox Adama Barrow ndam la parce que Adama Barrow tamit mu wax ko ñàkk ko wax dafa bëgg a taxawal. Mm-hmm. toogu boobu noonu du ko waaj a de. nguur dafa nekk de wala soo si jiixi jaxa boobu la ñoo nekkal ñoom ñu ne di jëm a maslaante waaye dina di dina ñooy am problème mooy ñun doomi Gambien. Mm-hmm. wala sànq soo moo tax man na nga ko de waree politique politique la waaye. nañ ko tegee boor ñu jël Buga Gambia mu nekk force. Mm-hmm. parce que tey soo gisee yeneen dëkk yi ñu raw ñu te man dama ko def exemple always nañ ko jël Sénégal Gambia su jarul ñuy dem Europe di xool. Mm-hmm. fii rek daf ñu doy misaal. man sax nga soo demee tey Sénégal lu bari lu gars yi di lekka parce que man liggéey naa Sénégal service. Mm-hmm. yàlla may na ma opportunité tamit fréquenté naa ak. top decision makers in Sénégal ak borom xaalis yu bari biir Sénégal mm-hmm. gis naa sénégalais investment yu gars yi di def biir Sénégal pour yóbbu Sénégal kanam mm-hmm. même mbóor sax nga nekk si koñ da ngaa gis benn borom xaalis bu dëkk si koñ bi mooy génnee cinq millions dix millions cent millions jox la ko football di same thing nga gis koo xam ne ni sax ñu ne dafa funny comme like nit yi dañ ko jàppe nga na ma yàlla baalal xëy na uh-huh. ñu ne ñorul mm-hmm. da gis benn borom xaalis moo jël alalam def ko si moom da ko ku nekk am teranga am kiram so loolu ñun Gambien si loolu lu ko waral mooy bugga senegal moo tax. Mhm. soo xoolee Sénégal lépp lu gars yi di lekk lu ëppoon doole si lu ñoo lekk dañ koo liggéey tamaate sénégalais dañ koo liggéey mayonnaise dañ koo liggéey sukuur dañ koo liggéey maalo ñu ngi koo béy ah, daala mbuba tubéy loo xalaat sénégalais ñu ngi ko liggéey saabu everything so am na lu ñoo import waaye lu ñoo import. in the next 10 15 20 years dafa dem ba nga xam ne lu ñoo import lu daw la moo nekk mm. te loolu mooy yóbbu dëkk kanam parce que man lu ma dee wax rek mooy dëkk mënut a dem kanam su nekkee ne lu ëpp doole su lu moo dundee daf ko jëlee si biti mu ñëw mm-hmm. parce que tey soo xoolee Gambia ñun suñ suñ suñ suñ koom-koom lu si ëpp doole maybe 75 to 80 percent bi yëpp dañ koo def foreign currency fay importation of goods pour ñu dugg si biir Gambia especially si wàllu maalo parce que man jamono ma nek xalé suma ko waxe ñu bari fi dañ dee ree man xam xam ma la tuba xam man ma la tuba té lu mako xam no dégal bi lay wax da nga boobu noonu ñu maa la mbéy lañ xam ah. parce que man ifin diw sa diw diw ah. trust me ay diw li ni ni gaay di jaay si man man xam ma diwaa diw gerté wala diw bene mm-hmm. parce que ñun dañ dan bay bene mm-hmm. de près presque temps mo CRS mu ngi am mm-hmm. dañ dan bay gerté presque mu nekk diw mana san so dañ dan cog si loolu dem ay maybe hen nga dem ci gënté nga gis ñu togat diw bi ni wala mala ben la way ñun mala bay lañ xamoon nga am mm-hmm. yoon mm-hmm. xam so man fogg na lolu mën na mo del ci wal pour lolu tam pour mu del ci wal pour jaar ñu jël ñu bay di jël nit parce que dama ko xam mm-hmm. parce que daf ma support parce que ñoo bokka xéet ñu tek ko ci place nañ jël ñi nga xam ne ñoo am xam xam ba paré am xam xam bu doyut ñu nekkal nit tam ñu jub jub bi tam doyut ñu nekk tam ñoo xam ne dañ bugg a Gambia parce que loolu mooy tax liggéey mu am parce que su dul loolu nit ku su amee xam-xam tam mu nekk satakat soo ko tegee nga dénk ko ministre yi xaalis réew fi mu nekk nii xaalis bi comme fu nga waxee noonu foofu la ñuy ñëw xaalis bi coow li bari na barki dé mu njaay adama baro yéen jógee <laughs> jëli xaalis bi a barki dé mu njaay ñu ngi gis ne Facebook bi ñu ngi siyaa benn mm. euh, lii bu nga xamante ne affaire pandémie yi wax ji bari na because adama baro su mu nee may euh, naka la 10 percent of his salary te Gambia ni xamuñu adama baro ñaata la moo fayee ñu ne xamul na si padia bi la góor <laughs> waxuma ko assen daa ko wax waxuma ko lépp lu ma ko wax rek waxuma ko askan daa ko wax dabax yaa ma ko gën a xam yaa ngi ci social media. Ah, ah. gis nga ne bi ñu waxtaan. waaw <laughs> ah, ok la ñu ngi wax ne comme tri people li nga xamante ne suñ tukkee within 15 days. Hmm. gars war nañ leen a jox padia ma half a million. ak lu tegal am Henry Gomez mom tukki within six days mi jox ko 207 naka la 77000 ana lolu xanaa loolu kon naka lam fa demee nonu wa ke ñu ñëgé si xaalis bi gaay di wax mom la. baro di lay Bruxelles. Mhm. foog na goxaloon ñu tamit. ok dañu njëkk rafetlu. wa lu gaay def parce que man lolu yagala ko parce que bind mhm. naa ko di temps bu gars yi ñëwee ees ma ne dañu am opportunité. Mhm. pour organiser donors conference. Mm -hmm. because right now ni ñi nga xamne ni ñu ngi djublu gambe si walu yërmande dafa bari. at that mm-hmm. time why okay gaaw tel na hapun telu ta hapun tamit. dañ na lolu suñ ko defoon two years ago time bi gars yi ñew est nañu don dimbalé ba nga xamne bor yu bari yu di jël nii tey duñ ko don jël. Mm-hmm. waaye terewul tamit naka la tuddaati ha ah, is better late than never. Mm-hmm. ah mu mu mu leta am mo gën dan mu ñaka ñaka am. waaye foog na tamit ñom seen communication ak askan bi dafa des man finance la jaar lolu mm-hmm. la am experience te si loolu laa mos liggéey waaye foog naa ne english is very simple mm-hmm. play ku nekk xam ne mooy mm-hmm. dig dig du dig du loo téye si loxo ifin sooy def sa budget sax doo mun a dem def budget based on dig non que lu actual lolu ngay def sa budget nga base ko si because soo ko basee si dig te dig bi ñëwul soo ne tey comme tey ma jox la exemple tey nga ñëw nga ne di nga yokk a civil servant si seen salaire. pour mm-hmm. let's say 3 percent ou 5 percent. Mm-hmm. nga bées ko si dig bu ñu la dig. Mm-hmm. léegi su dig boobu noonu ñëwul yow fan ngaa jëlee 3 percent boobu nga dig sa civil servant. so foog naa foofu ñoom ñoo war a gën a leeral it's a nice thing waaw lu baax la luñ def lu baax la mm-hmm. dem ne dañ am problème bi ñu ut ndimbal so mm-hmm. ñu dig lañ loolu is very is very good mm-hmm. waaye nañ communiquer ak nit itam mu leer parce que xeet yi buñ fàtte da nga man dama ko da nit yi is good ñuy ñuy ñuy check ñuy def comparaison xeet yi bu gaa amee disaster boobu noonu seen pledge bu gaa amoon was 15 billion dollars ba léegi ba jamono bu ma waxaa yow nii yi 4 million dollars rek la gaa receiver bu understand te ñooñu ñoo gënoon a nekk in a dire situation than Gambia mm-hmm. man li ma am foofu pour wax mooy government am na responsibility benn pour mu communiquer daal askan bi pour mm-hmm. xam ndax nit yi seen yaakaar buñ aj si kaw mu waate su ko defee su nekk ni ñu bare nga xam ñoom seen bopp li dafaa ñëwaat ëllëg mu xont lañ parce que su mm-hmm. nekkee plej buñ plej damu trou fulfiluñ ko nit yi dañoo ne dañ jël xaalis ñu lekk ko dafa fekk xaalis nekk fa su wan tout ñoom dañ war a créer office boo xam ne spécifically pour mu follow up this plan moo war a nekkal mm-hmm. su ko defee ñu mun a teg ñu ñu pression gis nañ ñooñu luñ leen dig fulfil nañ ko xam naa ne nag lu bari lu ëpp doole si xaalis boobu du nekk ak bu ñoo jox gars yi. Mm-hmm. dañ ne ay mm-hmm. mu nekk ak yoo xam ne nii projets yoo xam ne ñoo indi European companies ñoo def ko loolu yëpp mën na maa ko waaye lu gën a am importance mooy. ñoom ñu def follow up ba gis ne diggee yoon ñu diggee la lañ lu ëpp doole si loolu xëy na ñëw na ba ñoom jot nañ ko loolu foog naa suñ ko beneen bi mooy physical discipline xam nga gambien si ñun dañ dee gaaw a fàtte mm-hmm. man dama ko defoon nit du ma ku nekk loo am si àdduna indi na la ko yàlla xam na loolu waaye buñ dee gaaw a fàtte mm-hmm. parce que gis nga government bii nii ministre yu ëppa doole si ñoom ñun xamante xamoon nañ leen fii before gars yi di nekk am ministre mm-hmm. am na ministre yoo xam ne seen moto yi fii lañ daan ñëw bugga koo taal te dañ leen dee puus non li ma laa wax ni du affaire yi du ma tuddal tur waaye ñun xam nañ mm-hmm. am na ministre yi nga xam ne ni am na xam nga Gambien si lan lañ war a understand mm-hmm. ñun yaagan fii lañ nekkoon mm-hmm. parti yoo xam ne nii dañ daan dox si ñaan donation boo fon nii moo daan fon partis yooyu noonu tey partis yooyu noonu ñoo nekk di yaataa yëmbe di organise ay programmes yoo xam ne dem oote sabar di oote woy di may so Gambien si ñu ok anyway man naa ko daan utile billahi suñ defee bañ delluwaat si nekkoon yàlla si boppam sax this time gis nga most of these kenn du fi toog dañoo dem doxi seen soxla. Mhm. parce que xam nga lu tax am nañ opportunité bu bu dem keneen ak keneen am na opportunité boobu wante doomi baadoola bu nga xam ne ni wala maire bu nga xam ne mu ngi syndicat marché di jaay. Mhm. kooku dafa am paas bu dem Banjul sax waxuma laa bàyyi jëndal ticket ndax waa gi du dem. Mhm. so lu ñu war a njëkk a def mooy. lii du affaire yi du affaire yi du affaire diina lii affaire yi lu yóbbu Gambia kanam la te te taxaw wax bu rek du yóbbu Gambia fen dëgg bi mooy ne ñu ngay gis ñoo xam ne nii barki démb dañ daan ñaan dépense te ñoo nekk di samp ay mansion yoo xam ne fan la gaa jëlee xaalis boobu loolu responsabilité nationale assemblée la pour ñu toog ñu oo ñooñu ministre yooyu ñu wax ñu fan lañ jëlee xaalis ñun waxuñ ne dañ sàcca man laa wax man waxuma ne gaa dañ sàcca mhm. wante ñu waxante dëggal starté ko from président bi muy Adama Barrow mhm. man dama daan rombas gaa yi seen kër man ka man kuntaate dem a nit ñi a san kër bi meluton so su demee dem ko def noonu nañ ko oh ñu laaj ko fan la jëlé xaaliss mu wax ñu parce que olam njaay mu ne ku def ñu rey sa maam lu ñu da nga daw ah. ya jëmee fi la nekkoon xam nga lay suñu ne la commencé won tok rek ñu déggal sa bana kanil la mm. wala san té ñom ñu nekk di def lolu té ñoko don doon so té ñom suñu ñëwé ñu dublu ci tanka yoonoon Amadou Sané ministre of finance bu mu ngee sampa ñu ne 4.5 million dollars mm-hmm. bansan lu tax samp don kër boobu noonu bansan bi fa mu don nekk ministre nañu wax fan la jëlé xaaliss bobu so is not about ne da nga iñane nit ki wala because man du yaga de yaga du yaga du yaga dama dépend ci kenn mhm. pour man suma dunda on a sànni te yaakaaruma sa liggéey go dulu mau du lu ma bugga parce que suma ko apa def na parce que amna opportunity ofo nañ ma jox ma ton ko daw du bi da government bi fu nekkoon parce que gëmuma woon ne nguur bobu mu doxal lu nga xam teman lu jaar yoon la te man duma bokk ci lu nga xam ne nii der dafa ngir halal khalis wala place wala mahama mhm. jaraluma ko so nañ bàyyi xel ne changes daf di am nguur bu dul jeex mooy nguur yàlla. Mhm. waaye nguur bu mun di toog si kaw àdduna da ngaa dem. waa nag gars yi nag loo xamul kañ laa jeex boo si nekkee. man ah, dem si ba jeex. non non non non ah, ah, am nga soo ko seetee comme ñi nga xamante ne ñu fi ñi ñi comme parti bi comme government bi léegi soo ko gisee comme li fa nekk yëpp soo ko seetee ba seet. ñu ngi yàggoon a hungry of power laa ko mën a gisee ñu ngi ñu ngi a fay place bii nii xam nga ñu ngi yàggaa xeex lii nii soo ñu ngi ko am léegi dañoo wax ne ñoom tamit xaaral ñu jël seen wàll ak seen yooyu waaye ba léegi rek man dama dee wax ne nañ bàyyi seen xel parce que Gambien ni ñoo leen fa te eh. foo ko yóbbu ah wala bu foo ko yóbbu non nañu wax ne dëgg parce que kaay ma wala leen gis nga ñu gis nañ fi ñu la fi ëpp xaalis amul kenn ku nga xam ne da ngaa soo amee téeméeri kër si benn a dëkk te ci kër boobu lu mu bari bari néeg benen néeg la ngay dëkk te gis nga nit yi dañoo caaxaane loo xam ne nga man lu tax ma liggéey nguur dama do ma ngi nekk ndaw man toog déglu safa gey muy waré mu ne so jëlé alali mbooloo mm-hmm. mu ne na sax yeen ñi nga xam ne ngay liggéey si gouvernement mm-hmm. mu ne so ci lekkee ben franc ah mm-hmm. mu ne yomal xiyaam bolé ku nga xamni doomi réew bobu la musa nekk dina jóg taxaw ne yalla ki dafa jëlon suma suma suma suma waala te na ma ko loolu ñaari affaire man moo tax su ma la ko su ma ko waxee ñu bari ne nañu ma ne non waaye loolu yàlla xam na ne billahi loolu moo tax benn bëgguma liggéey nguur mooy parce que bëgguma lekka lu nga du suma especially bu mbooloo ñaareel bi tax bëgguma dem Europe waxuma ne ñu fa nekka ñëpp de man duma bëgguma def lu lu lu lu àndutaak yoon du ko suma ne loolu moo tax ko def so moo tax nit ki wala nga mandul si liñ laa fay parce que liñ fay di ngaa dem jëli liggéey boobu noonu yow wax nañ la ko nangam la salaire bi nga d'accord si condition yi nga ne waaw nga sañ ma la soo yow xamoon nga ne lii mën na laa continuer mun na laa dundal wala mënul laa dundal su su demee soo demee fil laaj ne liggéey bi ngaa def li ñu laa fay mënul laa dundal nga bàyyi nga dem uti leneen loo xam ne moo gën loolu waaye doo mën a jël parce que xam nga ñii nii ñëpp from di président la ba si daan bi mm-hmm. nañ toog ñu xalaat mm-hmm. xam nga campagne bu passé nii campagne yu député bi li na na ne maire élection bi dafa yóbbu place yoo xam ne kéem si fii moom dem si place yi. billahi wala la te dinaa ñëw si boobu. dama dee wax ma from Jawara laa wax hmm. de. ba Adama Barrow. ñu mus hmm. a nekk ministre yëpp ak président ak permanent secretaries ak deputy permanent secretaries ak directors. suñ tëddee ñu nelaw ñu tëdd nelaw ba xaandoon. man dama dee wax ne ñooñu seen góom-góom dafa des. Hmm parce que mënuma understand yo nga nek di sàcc alali lingu nga gis jigen bu dëkkaat ci kaw gi mhm. mu ngi febar nek ab bir wara dem ami mënu ñu am ambulance bu ko yob ñu ko ci seret muy dem bla mo aga bir bi yaaxu wala mom ci mu dess yoon wala dom bi yo nga di nelaw ya ngay ministry of health wala nga gis xale bo xamni mu ngi ci mu ci Gambie nga dafa dox ay kilomètres pour dem school mhm. yo nga sàcc xale because of loolu so nga bëgg nga nga bëgg nga tëdd nga nelaw ba pare nga sampa ay mansion yu taxaw sa doom yi nga nga sa ñu dem Amerika Jangi, so yo ya, nga yaakaar ne yow ya, soo nga dem arjana trust me waxuma ne man moom ma arjana de waaye ne ahi Dubai ala suñu la tee so loolu lu ñu war a xel la ne place bi joxuñ la ko pour nga nekk di yu non demal nga liggéeyal askan so demee mm-hmm. ba nga xam ne mënatuloo liggéey nga resign nga dem doxi sa soxla wana sa nga waaye nit nekk di sonn si dëkk bi dafa bari ñu nekk di am ay coono every day billahi tey rek kenn maa ngi ca kenn mu ngi posté sax ma ne mu ne yelwaan gi dafa bari si dëkk bi aadala ndax poverty su ma ma ne ko ñaar yëpp la poverty la nag man mun naa wax ne because soo seetee ni ay ñuy yelwaan léegi léegi danga de dajee ki nga xamante ne jongo bu mel ah, bu mel ni man macha allah dara jotut am nga gis ko mu ne eh, buloo baala ma dama bëgg lu ma jëndee añ wala dama bëgg ma jëndalee fekk yaa ngi am doole pour dem liggéey wala lii ñeneen yu bari tam ñu ngi yalwaan soo ko seetee amuñ liggéey bi amuñ opportunité bi pour am liggéey bi because liggéey bi comme nu nga ko waxee et puis nga xamante ne kili na sax dangaa dégg su amee dañoo woon ne xaaral ma woo suma bi mu ñëw. wala xaaral ma woo lii bi mu ñëw. kañ laa Gambie bi di dem moo tax dara du correct si diggante kañ laa bi di dem. moo ñoo amee xam-xam bi ñu xamante ne ñoo liggéey bi ñi xamante ne lañ fa war a teg duñ fa dee teg ñooñu. kaa ma joxe si dëkk bi ñu amee xam-xam yi nga xamante ne ñu ngi amee li nga xamante ne suñ leen joxee place ñu def wandas waaye ah, ma ne jàngal comme jàngal de am kayit Mm-hmm. dem university am masters whatever man mo nek lasting mm-hmm. no mo gom ne dañu recruit nit based on dafa am masters wala dafa am is good bahna, na mm-hmm. te encourage nit ku nek nga jàng waaye gis nga man lu gina am solo ci man moy caractère nit no mana sanga parce que nit ki su amé caractère hein ah, lépp lu mo def dina si seet digganteem ak yalla parce que tay ñu da xaa ñu la diplôme Mm-hmm. ay master's degree ay PhD ay lu nekka understand so man gëmuma ne nit ki da nga war a jànga pour nga war a man non ñaareel bi mooy gars yi dañu war a isiwaat ñun temps bi ñu nekk xale dem primary school da xëy suba nga taxaw nga woy national assembly. Mm-hmm. ngeen ngeen def assembly ngeen woy national anthem bi. xam nga school bi foo dem mu ngi am Gambia bi. Mm-hmm. national pledge bi you know yooyu noonu yëpp. parce que loolu tamit lu moo def mooy dafaa gën a indi nit ki mu bugg a réewam. Mm-hmm. su nekkee ne yooyu noonu yëpp ñu ngi ko génnee si système bi on a xam ne dafa dem ba nga xam ne ni tamit nit ki dafa foog ne yow ok du du nekkul loo nga xam ne lu am solo la te fekkal lu am solo la. Mm-hmm. you know so man foog naa yéen ñoom ñëpp gars dañu ko war a delloosiwaat. Mm-hmm. politiciens yi tam ñu xam ne. Mm-hmm. nekkul ne ñoom ñoo gën si askan bi waaye ñoom la yàlla def ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo jiite soo na gars yi jiite si lu nga xam ne nii boole koo yërmaane. parce que ñu bëri ñu ëpp doole si askan bi dañ ndóol. seen loxo jotul gannaaw. soo soo soo jiitee façon réew noonu yow li nga xam ne moo laa may ndam mooy ndax nga mën a def ba suqali dëkk boobu noonu ba nit yi seen ñaaka bi. ñu ñu ñu ñu ñàkk si askan bi mu gën a tuuti te nekkul dem di joxe xaalis joxe xaalis du faj dara. waaw loolu noonu time élection bi lañ dee gis time campagne bi nga gis ne gaa yi dem joxe xaalis ah, te ñu leen dee sànnil yëpp mostly ñu nga xamante ne ah, ñu ñu ñooy ñàkk ñi ñu ndóol ñi ñoo leen a sànnile because ñooñu la ñoo dem di leen wan ay jox leen benn 5000 wala du egga loolu sax. Ah, si yaago nii wax leen li nga xamante ne next minute dig leen fa dig am maanaam te élection ci passé mooy loolu gars yi duñ ci gis dara wala duñ jaarati boor boobu sax yaa ngi gis am loolu tamit man dama day wax ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax ah, ba léegi rek di leen wax ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion si seen Tambambalu show sponsored by APS International Limited bu leen ko fàtte approve service am ñoom ñoo dooleel programme bi lépp loo bëgg a si wàllum yónnee xaalis ak jël xaalis rek yombalal nañ ko nit yi wax naa leen ne doo dem foofu ñu naan la ne suñ network bi dafa dem wala xaalis nekku fii wala mooy loolu customer care bi baax na te gars yi am dinañ la jox sa xaalis doo si am benn solo am nañ ay service yu bëree bari nduga service bi nu ma leen ko dee waxee saa yi nekk rek yow mu nekk fële bugg a jëndal sa gaa yi ay bagage diwlin maalo soble yooyu noonu toogal si sa computer wala sa laptop wala sa mobile rek autorisal gars yi ab gars yi dinañ la ko jëndal yóbbul la ko ba sa parents fu mu munti nekk si large village bi si Gambia sax gars yi dinañ la ko fa yóbbul am te si fay benn cost la si xaalis bi nga xam moom la ñu wax mooy xaalis jëndee ay ndawal ay ñoom jën kon nag gars yi yombalal nañ affaire yi da baax ñu tukki am ba léegi nag xam nga duñ foog ñu wax parce que ñoo ñu dooleel. ñu tamit te olof jaay mu ne feccum riir bu neexee ndey jaar fii doomi Gambie na ko moom di dooleel Gambie ni ñuy invite nit ñuy ñëw di waxtaan di leeral xam nga am na solo lool. dafa am solo trop. Mm-hmm. Euh, Gambien si dañu war di support. li nga xam na ni Gambien mm-hmm. la. du du du bañ lu nekk si biti. Mm-hmm. du loolu soo xoolee xam nga ne woon ni rek progrès man a site boobu noonu Sénégalais yi. ñu mm-hmm. si lay raw téeméeri junni soo xoolee wari. wari Sénégal Sénégalais moo ko commencé Sénégal fii la commencé. su nekkee am na ten years sax na ten years bi sax <laughs> noonu. waaye tey soo ko bëggoon a value in terms of. xaalis ñaata laa war yi woon. Mm. it's like millions of dollars. Mm-hmm. lan moo tax mu àggal loolu parce que doomu Sénégalais la. Mm-hmm. parce que ñoom fu ñu mun di nekk rek balaa ñoo ñoo ne ok balaa maa yónnee xaalis through Western Union. Mm-hmm. Western Union du bu Sénégal. ok wari Sénégalais moo ko moom xaaral ma dem wari ko mu dem. so through that ngay supporté local industries ñu grow. waaye su nekkee ne yow loo gis rek lu Gambien defar nga ne lu Gambien jiite nga ne baax ah mooy Gambien tam du musa baax. mondial te compagnie bi Gambian ñoo ko moom te ñu ngi try te Gambian yëpp ñu góor lu bu baax a baax soo seetee place bu mel ni Gambian Talents place bi ndaw na waaye lii na waaye am nañ fi ay staff yu nga xamante ne ñu leen a mun a fay salaire ñu ngi leen a mun a suturaal loolu suñ defee nii keneen def nii kon Gambia dina dem parce que gouvernement mënut a amee ñëpp. yaa ngay gis il faut que ñun ñëpp ñu bokk rek ngir suñu réew dem kanam man lu ma di wax saay nekk rek ñu bàyyi wax bu bari te liggéey suñu réew dem si kanam affaire yi ten percent bi waxumoo si waxuloo si dara de ten percent bi man lu ma war a wax foofu man lu ma wax foofu noonu nag mooy luñ man personnel hmm. lu ma rafetlu rafetlu indi sens na nekkul ne amaan bi hmm. wante di ak hmm. parce que man dama nekk nit koo xam ne ni su ma gisee loo xam ne correctul ma fiil ne correctul ko dee mu gisee itam loo xam ne dama feel like ne is ok moo tax gis nga ñu bari dañ jëlee wala nga dégg ñu ne ma yow APRC nga ëllëg ñoo ñu ne ma UDP nga ëllëg ñoo ñu ne ma doy nga parce que ma lu tax man Gambia laa mm-hmm. political parties yo gëmuma si benn mm-hmm. political leaders yo gëmuma si kenn parce que ñoom ñëpp ñu ëpp doole si ñoom seen personal interest lañ jiital mm-hmm. waaye du interest yi askan parce que fifty three years su nekkoon ne politiciens si dañ jiital interest yi askan bi Gambia am na feneen fu mu ok man ak bi la laa rafetlu moy mhm. ne comme jël na 10 ci si salaire mu ne ko joxe ah, si budget bi xawma nak ndax loolu lañ finally approve man li ma gisoon moo nekk 2000 200000 moy salaire mhm. waye xam nga fi ah déedéet si budget bi gay dañ waxone ne duñ disclose. non baraw mënuñoo ñoo ñaka disclose salaire yi Adama ko gissal nga Gambien si man loolu la lay wax nit ñoo am problème bu mhm. gis nga fi même sabal football kat sax so ne ko ñata lañ la fay mu ne non mu ko wax. xam nga la moo nekk dëggal bi mooy. Mhm. billahi man su ma su ma su ma su ma su ma wootee million dalasi naa la ma ne ayam woot million dalasi parce que xam nga lu mhm. man li ma gëm. li ma mhm. war a am. billahi wallahi taala kenn mënu koo xañ pour mu ñëw. li mu nga xam ne tam waruma koo am kenn mënu ma koo jox soo nit ki soo xalaatee noonu la doo sona président bi nit yi dañ am right pour xam ñaata lañ koo fay ak mbooleem ku nga xam ne yaa ngee liggéey in institutions mm-hmm. muy minister muy director muy permanent secretary muy anybody parce que amul da halis buñ la fay askan gi ñoko mo mm-hmm. nekul sa private business sa mm-hmm. private business su la nee nga ñaka déclarer sa salaire parce que sa private business la ya ko mo sa bopp te nit yi dañ dé jaawale ñaari mbir bi nga nekuté si government ken dofut sa pour di kiss kiss sa affaire understand because ñi nii ñep ñu fi won Gambia fi ni nit yi lijjante wuñ leen soo buñ ko gisee ne comme tey journaliste ñu ngi lijjante affaire Adama Barrow wala vice président bi wala ministre nangam ñu xalaat ne dañ ko bañ non bañuñ la parce que loolu moo nekk seen responsabilité parce que yow tamit alali askan bi moom nga jiite ba pare askan bi dañ leen defal cër mm-hmm. waa mel ni ñoom seen bopp amuñ ko comme tey am na Gambien bu nga xam ne mu ngi eew du am dépense mm-hmm. wala su feebaree du faju bon yow government from the president to these ministers ñu ngi la jox opportunité boo xam ne ñu ngi laa fay salaire jox la passport passeport fu nga dem. Hmm. jox la gardes ñoo xam ne ñoo laa protecté. Hmm. Gambien benen Gambien mu ngay dem di dox nit dokkos yoon bi jam ko paaka mu dee nangu mobile mo hmm. mun sanga yow nak ya nga am sécurité ak sa njaboot ñu ngi la jox ñene ñi ñu ngi jox kër. wala suñu la kër am sa kër bobay ñu la fay rek housing allowance. Ah, ñu ngi laa saa woo tukkee ñu fay la xaliss mo na sanga té amna Gambien na mu ngi fi di tukki. moom mooy fay paas kenn du ko fay tus. Hmm. yow soo feebaree nga jóg fii nii nga dem fajuñ si biti dem am one of the best medical facilities yu yu àdduna bi mën a offrir nga am ko. Hmm. sa doom yi tey ñu ngi dem si school si sa jinne doful sax nga génte sax. Hmm. waaye tey yaa ngi ko am. so loolu yëpp Gambien si dañ ko nangu parce que yow yow ñoom ñoo la dénk responsabilité boobu noonu. waaye nag suñu la dénkee responsabilité boobu noonu ba jox la opportunité bi nga xam ne yow amuloo ko woon. waruloo waruloo nangu gambien si gën laa ginnaaw nekkal góor gën laa gore non yow seen alal bu ñu la dénka danga leen ko war a sàmmal ba nga gis ne tegu na si yoon am na njëriñ ba nga xam ne ni tey gambien bi feebar dem lopitaan dina faju wér moom mm. yàlla mooy wéral waaye at least mm-hmm. basic things yi nga xam ne moo nécessaire mm-hmm. dina ko mën a afford dina ko mën a am waaye tey public hospital si da nga faa dem. amul garab diagnose rek la la gars yi mën a bindal mm. bindal la prescription ne la demal pharmacie. so ñaata nit ñaata gambien ñoo am xaalis boobu noonu pour war a dem pharmacie parce que man every day moom it different kind of people. te soo demee di nga fay di nga jënd ticket 25 uh, test 50 dollars test boo test 50 dollars soo amutee loolu nag. xam nga xam nga nit ku feebar xam nga nit ku feebar xam man naa ko war a nit di faju it's just psychology. Mm-hmm. gis ku feebar. nan feebar waral su graw graw boobu non sax wala ak lu mu graw graw garaaw di fa daal ne docteur bi jox na ko garab rek mom dafa fil ne garab su ko naanee dina wér so loolu dafaa help si healing process waaye di fa daal ne dem nga lopitaan ñu la garab amut jox na la benen febar <laughs> deception boobu parce que man every day xam nga amna yo xamni xam ne ok dañ ko def ngir yalla rek tax. Hmm. xam nga waye tamit ba na tamit ñuy tokkal ñu explain tam ni di xam situation bi di di dund na. on nga parce que amna na ñoo xam ne nii ñoom nekkuñ dëkk bi fi ñu ci biti. Hmm. every day nga gis leen ñu binda man dama lay ree parce que dama lay ne ñii ba mu son gambia la gaay nekk parce que man every day ma gis nit ku ñu booy dépend sax ku ñëw taxaw di la ko def hmm. billahi ñeneen ñi dañ ko dee bañ sa ba dañ dee binda lettre parce que dañ dee hmm. ruus sax pour toog waxaa yow so nga xam ne gambien bi dafa am pride su demee ba di ñaan rek nga xam ne sonal parce que dama ko dee xool man suma bopp personnel man jamono bi maa nekk situation boobu noonu non suma pride mënul maa may ma ñëw taxaw di ñaan nit wala ma ñëw di yelwaan never waaye nit su demee ba di ko def parce que man numa mel noonu non la la taf non la Gambien si mel bi ko Gambien di nga wax lu nekk naxari na dere na mm-hmm. Gambien dafa am pride mm-hmm. wut ku ko yeb mm-hmm. so su demé be taw di wax seekereem ci biti wala muy talal loxam nga xamne ne dafa so lolu lu ñu war nangu la te lan mako gëné moy ñu def liggéey mu am parce que da nga dem si bena famille kenen nit mo fa liggéey wala kenn liggéey fa yaay bi dafa hay suma mu dem marché Nduga eh, mu dem marché jaay be boori 12 mu la Nduga ñëw wala sant nga dem si maalo bi basic commodities si maalo sukkur yeneen ñu ne dañ ko génnee tax bi si mhm. budget mhm. ñaata moons léegi mhm. every day commodities yooyu seen price mu ngay yokk so kan moo nekk di lekk xaalis boobu is the business people ñu nga xam ne ñoo nekk di import loolu te ñooñu soo gisee ñu ngi koo lekka kenn waxut si nguur gi parce que ñu ngey jox ñeneen ñi nguur gi ay enveloppes parce que mënumaa nangu nii ñu bari dañ jooytu bagage yi dañ seer bagage yi lii ba pare si taami weeri koor bi lañ dee jël bagage yi yokk ko dañ dee jël bagage yi sax denc ko ñu ne bagage yi amuñ te fekk bagage yaa ngi am soo waxee ñu ne ñu dee indi bagage yi la soo waxee ñu ne lii la kenn xamul bi ci yàlla moom moo leen ne yàlla du doomi aadama gis nga ñuy nekk borom xaalis seen business yi di grow grow grow nga toog dégg ñu ne la amatul tus lekk riba hmm. gis nga nit ki moom lu ma dee wax rek ñi nga ñi laa liggéeyal sax dañu am aas yow mm-hmm. te condition yi nga bëgg a teg sa boppam da si war a teg sa liggéeykat mm-hmm. te fii nag nit yi dafa bari ñuy jëfandikoo ñi nga xam ne ñoo la ñoo liggéeyal comme ay jaam mm-hmm. at the end of the day Gambia ngay gis ku liggéey forty years mu bàyyi liggéey amul kër boppam kër sax mënu ko understand so loolu mégu sens social sécurité bi nga xam ne moom la nit yi yaakaar pour soo demee ba ritaaya hmm. nga dem ñu war laa fay nga am looy continuer ñu ne booy 300 150 175 dollars man dinaa fay paas dem Banjul pour jëli. da da ngaa jaabalante. exactly so soo xoolee xaalis boobu noonu. am na ñu nga xam ne tey ñu ngi ko jëfandikoo tey soo demee kër yu social sécurité bi joxe man da man man su ma gom-gom gis-gis laa wax dama ne. Hmm. social sécurité waruñoo jox kenn kër waruñoo jaay kenn kër bu nga xam ne contribué loo social sécurité fond boobu. Hmm. te kër yooyu dafa nekk kër yoo xam ne ni sooy commencé liggéey da nga sa first contribution after mm-hmm. two months dañ la war a jox kër nga commencé di ko fay balaa ngaa àgg age of retirement dafa fekk sa kër boobu noonu fay bi jeex na te collateral bu nga nit mooy social security contribution bi nga def diko yaa da nga ko social security mm. waaye tey man su ma bëggoon kër social security sax su ma demee du ma am parce que lu tax xaalis bu ñoo caaj booy du ma ko mun mm, a fay on sa nga ñaata gambien ñoo mun a ñoo mun a génnee 3 millions dollars si 2 millions dollars si pour jënd kër dafa ndaw so liggéeykat yi tam ñi nga xam tam ñu ngay jël tam liggéeykat yi nañ support seen liggéeykat yi wax ma ne nga mm-hmm. may leen kër parce que mm-hmm. ku yàlla mayul xol boobu noonu pour nga def ko mm-hmm. waaye support lañ ñu am dëkkuwaay parce que loolu moo gën a nekk lu fondamental si doomu aadama dunda nit ki su amé malo bu weex sax mun na koo lekk turaa sax mun na koo way waaye mm. way fi nga dem di loué billahi bes bo fayul ben weer ñaari weer ko su ko mm. neexoon nga dëkk ci kër gi ñeneen fukki weer ko ah. la laa so loolu nguur gi tam lu mu wara bay xel la ne dëkk bi yow nga nekk ci condition bu cool na sere ne everybody in Gambia mu ngi cool non ñu bari nekkuñ si situation yu am na mu ngi cool hayna na gis nga moo tax gis nga yalla lépp lu mu rek daf xam parce que am na ñoo xam ne yàlla xam na ne suñ lañ suñ doon ñàkk ba di ko gàddee sax duñ tàllal seen loxo moo tax soo xoolee sax si alxuraan yàlla bi ma wax ñu war a jox saraat sax mm-hmm. dafa isi fuqaraa mu mm-hmm. am na ki nga xam ne ni mun na ñàkk na waaye mun naa génne mu dem yelwaan so moo ne kooku su génnee ba mu yelwaan ba mu am rek lu mu war a dundee na delluwaat mm-hmm. wante na xam ne ni amut te dafa ñàkk ba nga xam ne nii dëgg ko fekk dafa sol rafet ba soo ko gisee sax da nga koo bëgg a ñaan te mu ngi ñàkk Mm-hmm. so façon yu tam mu ngi bari tam si askan bi so nit ñi mm-hmm. nañ xel ñu xam ne dunda bi is fondamental dunda lu important la mm-hmm. especially jamono weeri koor pare ñoo dee gën a noot suñu moroom yi jullit parce que business people ñuy def waaye christian si di wéy nuñ dee supporter seen mbookaay yi ak seen booba ak doomi aadama fekkut ñu si ñun donc man a daba xoolal euh, christmas su jotee ay ñëwee si nii dangaa dégg loo jënd ten percent. waaw loo jënd euh, fifteen percent. te jullit yi sax ñoo de def loolu. loo jënd lii loo jënd lii loolu la gars yi min jamono boobu noonu. soo dem nañ ba def ko mu nekk ak noonu. léegi nag ñun nuñ ko gisee fii si weeri ko bi loo jënd. increase of uh, ten percent increase of twenty percent. soo demee tey mun ngaa dem jëndee tey sukar three eh, naka la one thousand three fifty ëllëg nga dem ñu ne la one thousand four fifty. soo ñëwee ñu ne la du man dañ ko yokka ñun instead ñëpp loolu lay jooytu si wéri koor bi ñuy waxtaanal businessmen yi ñuy jënd ak. non loolu dëgg la parce que man man man maa ngay jënd man maa ngay jënd xam nga lu gaay war a bàyyi mooy stock bu màgget la xam nga man finance laa jàngal stock dafa am ñaari façon stock la am na lu ñu ooyee la LIFO. Mm-hmm. last in force out. Mm-hmm. ak FIFO force in force out. so mënuloo dëkka si stock bi ni moom loolu mënut a passé parce que three months stock. Mm-hmm. foo ko foo ko teg. time bi war loolu war naa jeex. war na moo jeex. wala sax nga même su jeexul sax koo war naa mun a may na ok may nañ leen one month. whether sa stock bi mu jeex o ñàkk a jeex price bi dafa change bis level période. parce que soo bëggee may chance na bañ jaay seen stock leen nañu toog six months sax stock bi jeexul. Mm. te loolu moo nekk di happen right now nii. parce que mm-hmm. génnee nañ tax bi pour basic communities waaye ba tey. lolu mu ngee dem ci kaw te ki nga xam ni tay daf ko jënd at wholesale price pour bu nga dem nekka retail mm-hmm. kooku doo ko mëna forcer ba pare most of the time ñu la gars yi dem forcer business man yi nga xam ne ñoo dee make millions kenn du len attaque kenn du len war tous parce que ñoo ñu lay jox gars yi xaalis te loolu la gars wara bay xam nga borom bitigi ni so soo leen attaqué da nga la ñoo tooñ because ñu dañoo dem jëndal ñew jaayaat so automatiquement ñu price bu gars jëne rek la gars mëna mën a ñi nga xam ni ñoo nekk di issue ñu government wara confront ñu change seen attitude mm. mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ñu ne isi bagage big big big big big time importance ñooñu ñoo nekk jël bu mu def ko si baati gàmbeel si di leen watal fu leen nee ñu yóbbu te foog naa loolu dafa war a génn fii parce que nguur bi bu njëkk bi di nga wane sa ok nguur yaa jëmbe la woon ñoom ñoom businessman yëpp dañ def yaa xarit every day ñu dugal enveloppe wala yónnee gift wala mm-hmm. may ko moto wala wala so lu leen nee lañ daan def kenn du wax waaye government bi man expect bu ma adama baro fason nit bobu non gisumako de ba ma ko gis waaye mo fason nit bobu non so lu minister ministre si nga xam ne lañ individual ministry si nekkul di jël step si oote meeting gis na trade ministry bi 200 times mu ngi orgaay meeting wax dafa melni sam business people di respect buñ mm-hmm. ko waxam parce que dañoo wax di next minute ñu génnaat nothing change so fu mo aga moy domi réewi gambe ñoy dem tamit so deesele ñu def ñu def mburu 6 dollars ndax force de man war naa loolu gis nga usine Afrique Prime non kaa ma la gis nga am na yoo xam ne dafa réalistique gis nga marché market <laughs> eh, même itam xëy na man lu ma am finance baga waaye market kenn du dictate price market market da nga koo bàyyi mu décidal boppam man gis nga even si first time bi ñoo wàññi price mm-hmm. tax transport mm-hmm. ma ne amul njëriñ dañoo ginna a lor ñuy tukki mm-hmm. daan ñu indi solution parce que xam nga lu tax soo dee Brikama seven eighteen dalasi nit ñu fay birkaama dem etin dalas mo leen gëna mm-hmm. ba pare mo gëna a yombal si ñoom mm-hmm. ok léegi nga ne birkaama wàññi na ko to fifteen dalasi mm-hmm. driver bi ne la léegi man duma eb birkaama fa dem jox mo ne dama eb taboo ko to eight dalas <laughs> taboo boko to lamine eight dalas lamine birkaama eight dalas so at the end of the day you are paying more than li nga doon fay straight price bo noonu so mburu bi tam non la rek do mëna a rek nga ne mburu def na ko 5 dalas da nga xol yu bari yooyu ceeb ñaata la gars yi di jëndee forêt ñaata la gars yi di fay courant all those things dafa dafa dafa include nga toogaa ñoom ngeen waxtaan ngeen def benn study boo xam ne yow dina la óor na lii su ko defee ñëpp dinañ jëriñu mm-hmm. borom food bi dafa am njëriñ parce que borom food bi tamit soo seen mobile business am pour am la am na so ñi nga xam ne tamit ñoo ko jëfandikoo tamit dinañ génnee seen xaalis waaye dina am value for their parce que soo dee mm-hmm. five dollars nga xool mburu yu gars yi di defar mburu a ndaw léegi mm-hmm. so dinañ ko it's not value for money pour customer bi nga xam ne mooy génnee xaalisam pour jënd mm-hmm. so foo daan jënd benn mburu da ngaa jënd ñaar mm-hmm. pour nga mun a satisfy sa so at the end of the day which means you are paying double the price for one product or service bu nga xam ne moo nga doon jëfandoo so mm-hmm. amul njëriñ buñ dee ross pour ko political points def dara ñu ne eh. wàññi nañ ko wàññi nañ ko su ko defee ñu xamul. waaw da ngaa xool da ngaa xool the benefits the long term. ba pare nga def ko mu nekk inclusive. everybody consumer bi service provider bi mm-hmm. everybody ñu tok ñu waxtaan ñëpp dinañ gis na li pour njëriñu askan bi la ñu def ko soo ko defee kenn du mer mm-hmm. waaye soo forcé nit ki ne da def naangam rek dafa gis na yow da nga ko bugg a beddi te moom si askan bi la bokk so dafa dem divide divide disa dafa dem jël beneen système bu nga xam ne dina ko def te yow ba léegi li moo def lu légal la doo ko mën a stop parce que d' accord na si li nga wax mm-hmm. waaye man mi nga xam ne maay génn ma dem fay man may am pain. parce que tey ñuy dem Birgama dañ dee soogul dañ dee soona laati Kounda laati Kounda taboo ko. xam nga dañ dee fay parce que man la dee jógee. waaye dama ko dee yërëm sax. parce que su expliqué condition bu mu dee demee ñibbi ak condition bu moo ñëwee liggéey sax. su moo tax dama ko def sax su accès ten o'clock eleven o'clock sax man du ko def a def. parce que dama dee ruus sax pour woo ko def ko xam naa this trouble goes through coming work. understand so loolu lan moo ko in the 90s. time yi GPTC time GPTC doon nekk GPTC. Mm-hmm. parce que loolu rek moo mun a am système bi mu change. Mm-hmm. fekk private people bi ñoo nekk di invest on that key sector ñoom lu ñoo def mooy profit la gaay di xool. Mm-hmm. so profit la xool dañoo def lu leen neex pour make more money so government du leen mën a stop bu ko defee dañoo ñoo génnee seen invest. so man loolu laa fa gis daal loo xam uh, we need a proper public transport system. Mm-hmm. lolu moy force private sector bi ñu am yermane si askan bi waye tek private sector bi mo nek di major player in terms of transport. ñu na Gambia bi lolu mo ñëw ni private sector yi ñoo konka fu nekk lolu mo ñu xala di stop. parce que nga tamit private sector boobu tam ñu fa nekk tamit so xoolee tam ñu fa nekk tamit ñu ko mm-hmm. dole ci ñoom duñ doomi réew mm-hmm. té nit ki xam nga su né doomi réew bi du mun a am yermane am sanga parce que tay lu ñoo xol moy tey man dama ko dee war rek always uh, business people yi Gambia doomu mm-hmm. Gambie soxlawuñ favor from Gambia government mm-hmm. liñ soxla mooy opportunity bi gars yi di jot di foreign investor ñu jox ko di same opportunity doomu Gambie mm-hmm. because Gambie rek tey da ngaa jëfa benn foreign investor bu ñëw ak benn briefcase am rek the next minute nga jàpp ko GRTS ñu ne dem na mit na président yow nga nekk doomi réew bi dëkk Gambie def lu bëri toog fi ñaata at ministre sax pour nga gis ko problème <laughs> so loolu tam lu ma wane mooy ne yow da nga xeeb ñi nga xam ne nii ñoo nekk si dëkkam te te te te lu métti métti métti métti métti doomi Gambien bi du dem understand because kële dafa ñëw invest su demee ba gis ne dëkk bi di dem dafa withdraw mu dem understand waaye Gambian bi daf fi la dëkk dafa des ba peut mom moom si boppam am na yeneen dina ko rusa def parce que yaayam mom fi papa mom fi su génnee dafa gisante nit yi di mhm. xam nga man rus na def yéen son son price si malo maybe for example mhm. ñu ne diw moo ini, indi ya yaayam mooy diw papaam mhm. mooy diw understand di nga gis paa bu dox sa ñoo gis la hey li ak li ak li ak li te ñun mm. dañ joxante cër si site boobu noonu xam nga comme tey mun nga ñàkk a nekk suma papa waaye su ma la xoolee ne mut nga at pour nekk suma papa dama nga jox cër boobu noonu so loolu dinaa ko sa def ba pare goo xam su toogee waxtaanaa man is easier pour man ma understand lañ ma déggalam parce que mm-hmm. man maa ngi am mbokk nga xam ne ñu ngi koo jënda mm-hmm. sa nga xëy na suma faa nekk si benn kàddu benn làkk parce que moom ngeen yéen so loolu man waxuma ne na gars jox Gambian business people bi mu opportunities go foreign non waaye na gars yi def a level playing field ñoom ñëpp ñu compete equally and Gambians ñu choose the best parce que Gambians loolu la gars yi deserve Gambians deserve wuñ uh, second class deserve wuñ third class Gambians luñ deserve luñ deserve mooy the best lu nga xam ne moo nekk di happen anywhere in the world. Mm-hmm. parce que nit ki su ñëwee mu ne la maa ngi si. transport service. Tabernacle transport service, just like the same one that is happening in UK mm -hmm. or in New York or in France. Because ku ñëw na dama clothing line. Dafa war a nekk the, the best out of comme yeneen branches naka la gaa mm-hmm. so do you ñëw rek ñu def the dumping ground Why do you lu bon rek enu ñëw indi ko fi ne foreign investor waaw ñu ko célébrer. Tey nit yaa <laughs> wàllum cay nit ñu dugg ci wala ñu dugg ci baagari baagari loo bëgg rek ñu wax rek ah, nañu waxtaan baagari baagari am loo bëgg cay nit nañ si wax parce que ah. dafa am ñu wax si cay nit waaw non non lu am solo la parce que cay nit si soo leen gisee fi mu nii cay nit dafa mel ni daal cay nit si ñoo bëgg a jël parce que Gambien si ñu ngi complain every day nit yaa koo gis gars yi gunjur yi ñu ngi complain gars yi eh, naka la mandinari ñu ngi complain gars yi saaña yi ñu ngi complain Uh, because so said yi Chinese said company ñu def nii seen fële ni xam nga nit xam nga nekkin bi foofu naay su. waaw xam nga luy olof ñaay pull up la abal Pull fu la neex ngay xoolee. xam nga grand si yow ngay dégg xam nga grand suñu yegg man si ñu taaju célébrer. Mm-hmm. Eh, eh, eh. grand si daf day ñëw conditions conditions yoo xam ne xëy na nguur mm-hmm. gi du la ko wax yow. Mm-hmm. parce que yow moom li nga bëgg a déggal la mooy ne. may nañu xaalis bi may nañu fukki million dinañ sampa dinañ sampa conference hall conference hall bu ju né gambien dañ fa liggéey mhm. so ñi nga xam ni boy nga xam ne ni dañ ñaaka liggéey ak mhm. parents yi nga xam ne ni seen doom yaa ngi toog amuñ dañoo tàccu celebrate duñ la wan ne ñooñu suñ ñun tamit dañu ubi suñu dëkk bi pour ñoñu seen doom réew yi ñu ñëw ubi seen factory si fini dem napa suñu jëni wala liis nañ leen géej bi ten years mhm. ñuy napa? understand nga te yooyu noonu yëpp dafa am consequences towards the environment especially comme like lu nekk di happen gunjur loolu man du ma blame kenn government laay blame. parce que mhm. xam nga lu tax loolu suñ ko demoon tuur ko bunti state house wala si taati pare bi boori state mhm. house benn fan du am Adama Barrow Moustapha nañu wante dëgg rek. suñ ko demoon yóbbu si kër minister of environment wala minister of forestry wala director of NEA ñaari fan ñoom seen boppam duñ ko dëkka. Mhm. so lu tax expect waa Gunjur yi war a dëkka si condition boobu noonu dañu war opportunities pour mu ex pour mu dundal like one of the best living any Gambian could afford. Mm-hmm. so koko su paree pour dundal loolu lu tax yow nga expect waa ñu ñu ñu war a sacrifice ñom sen health not only sen health sa wan de geej bi nga xam ni ñun loolu lañ yaakaar pour dundal parce que tey jën daw nañ. jën yi suñ dawul sax mooy ne chemical bo noonu gars yi du tur si biir géej ñun xamuñ lan la anal mm-hmm. parce que jën suñ ko jëlé ñun ñu dem nafa ci jën yooyu isiko ñu yobu ko ci marché bi ñun ñu dem ñu jëndax nga ñëw ko ñu koo jënd dem togg ko ñun ñëpp ñoo koo jënd dem togg so mhm. moo tax buñ surprise in the next five years six years ñu ne suñ health budget health bi dañ ah, budget budget for health dañ ko war a yokk parce que nit yu nekk di feebar dafa bari non it's true parce que lu daal ñun Afrique tubaab bi dañu bëgg a téye du tubaab bi rek sax waaw ah, développement bi dañu bëgg a téye comme laaj na ñun dumping ground lañ parce que xam nga lu tax xam nañ ne ñun most of the time leaders yu ñu am leaders yoo xam ne laaj naka la tuddaati ah, seen bugga bugga réew daf dee des ñoom seen bugga seen boppam moo leen dee gënal téeméer yoon leen askan bi parce que xam nga lu tax mm-hmm. tegal nga xam ne nii ñoom dañ ñëwoon ñu nekk ñoo xam ne dañ dedicated for their leen dee rey mm-hmm. wala ñu kudeta leen wala ñu jaxase leen ak seen population ba nga xam ne nii nit yi dañ leen dee génnee wala ñu wala lu ne mm-hmm. waaw rek bi dee China Gambia si global village la nekk waaw ñu ubbi suñ bunta pour yeneen dëkk yi parce que tamit dëkk bi tam dafa need foreign direct investment mm-hmm. waaye nag foreign direct investment boo xam ne nii dañ ko war a teg si yoon mu jaar ak sarta yu nga xam ne nii international standards and norms lu nga xam ne ni Chinese bi du ko def biir China mm-hmm. waruñ ko alaa mu def ko biir Gambia ba pare mm-hmm. si noonu te su ko doomi Gambia defoon tey ëllëg xëy nañ tëj nañ business am bi wala nañ ko lu nekka soo loolu tam foog naa tam lu ñu war a lu ñu soo seetee uh, mandinari gars um, yi gars yi ñu fa comme ñu ngee loru parce que uh, ñun bés buñ fa demee sax man wóor na yàlla ak weeri koor bii nii du waxi fen wala waxi sos soo ko waxee ñu ne dafa exagéré waaye dama fa jógee feebar Westfield laa daan ngir eh, eh, foofu noonu système bu fa nekk ak yooyu noonu ak ak ak lii bi chemical faa def ak yooyu noonu ak ñi ñi ñi caa faa jëlee aboson ak jur gaa ngee dee ñi caa faa jëlee ay asma xam nga place baa ngi mooy comme li ma wax rek gis nga nit ki soo nekkee su lu nga xam ne nii moo nekk dëgg mm-hmm. la na bi yëpp mere. Mm-hmm. taxawal si dëgg boobu. gis nga nguur yaa jëm bi gars yi commencé di ko castiger fii nii ñun especially Gambien su nekk si biti. rawatina Panderi. Mm-hmm. parce que man time boobu si moom laa daan amee information yu bëri. Mm-hmm. waaye lan la gars yi wax bugul dëkk bi dafa noonu dëkk bi la dafa fen waxul dëgg waaye tey ñu ko doon wax ne dafa fen tey ñooñu ñooy toog tey di gis ne lu mu doon wax waxuma ne yëpp de. waaye mën na wax 90 to 80 percent 80 to 90 percent of lu mu doon wax ñu ngi koo gis from the commission te TRC bi commencé hmm. so lu ñoo gis nii tamit tam di ko wax nii parce que man bu bu nekkal fii nii si Elton bi fii dem naa ko hmm. waaye foofu pour nga nokki sax da ngaa dëgër fit rek nga dem fii laa laa wax foofu same thing understand so lu tax nga xool fan lañ ko tuur si gannaaw Elton bi waaye soo nekkee boori angenyo light yaa ngi ñëw sa xel bi mu ngi laa laal parce que lolu mo la wone li is not normal parce que lu nga am ne mu ngay rey jeni ya nga tolu ay kilometers wala ay mitas ya nga kon inhale mm-hmm. mu ngi la affect sa pour nga noki noki bu correct mm-hmm. kon war nga am ne lolu is dangerous so I think ne dañ wara government bi la wara jël step ah, president bi especially moom mo am responsibility two years government bi mu ngay dem mm-hmm. booy two years mun ngaa def cabinet reshuffle parce que am na ministre yoo xam ne nekkuñ di liggéey dañoo wees sa time te duñ la liggéeyal Gambien si yow lañ sànnil te yow lañ àndal tey soo jëloon tey tey nga jóg nga daax a cabinet bi yow sa Gambien si dañ la Gambien yi dañ la attaqué parce que soo amul dara looy ragal cegal lu nga xam ne moo nekk intérêt si Gambien nga def ko mhm. ëllëg ñun ñooy dem ñu sànni ji waat soo taxawaatee itam la bëggee sànnil su nekkee def nga day nga laa sànnil waaye ñii itam ñu sa biir cabinet bu nga laa gomloo ñoo laa fal faluñ la mhm. parce soo ko seetee soo ko seetee MP rek nga koo gisee ku nekk a génn wane sa boppam ku nekk génn taxawal sa political party ku nekk ñëpp ku nekk dafa mel ni ñoom ñëpp ñu ngi éem benn benn. non duñ ko liggéeyal benn place bi parti leader su nekk si biir coalition bi daaxul leen gars duñ liggéey. yaa ngi gis. parce que ñoom ñëpp dañ am interest pour toog si tugg Adama Barrow bu ko ak ndax bu ko gars yi mun di nax nag ak ndax buñ ko mun di nax ak wax bu neex bu ko gars yi mun di wax nekkuñ di ko wax dëgga dëgga bi mooy ne toogoom bi la gars yi soxla te in three four years time di nga gis. ñoom it neen ñu start di am problème seen biir. Mhm. ngi am problème ñu ngi am problème parce que seen jublukaay yi ak seen gis-gis yi bokk. so alena bi dee ñeen ñooy sonal ñun mhm. Gambians ñooy sonal parce que dañ faa nekk di crumble di eh, di five years dem na ñëw na tous te moo soo xoolee ba léegi most of the things yu nit yi expect on because man dama ko def nit ku wax Adama Barrow pour mu sampa school wala yoon da nga tooñ parce que ñun mhm. lu ñu expect minimum mooy bi mu justice bi mu happen ñi ah, ñu war a compenser ñu kon these mm-hmm. are basic things yu nga xam ne like. nit ñoo war a happen. understand kon su nekkee yow nekkuloo def loolu nga ma dig ay affaire dama bëgg a transform ji bi port baag ñun laajuñ la loolu luñ la laajte mooy. Eh. constitution bi baaxut nañ ko reform or ñu am ñu constitution. ñu war a am justice ñi nga xam ne nii dañ dañ dañ dañ dañ suffer during the time of the former regime. Mm-hmm. ah jox leen justice ñi ñu war a compenser ñu compenser leen but yow yaa ngi spend ay millions on travel ñi nga xam ne nii ECOWAS ECOWAS code bi joxe nañ. dem nañ ba si code bi cappaandaw la code bi ne daan go amee gox na ñu ne da nga leen war a fay ngay dem nga ne da ngaa négocier daal noonu pour nga fay in installment hmm. man su ma nekkee su ma faa ko def sax maa bañ nañ ma fay cash because the thing is ñu ngi spend ay xaalis yu dul jeex si loo xam ne amul njëriñ pour hmm. askan bi so lu tax ngay dem di négocier daal ku nga xam ne nii kooku bakkanam xëy na mënoon na fi xëy comme hmm. family chief maa for ngi toog ñu seen doom du na after bi change of government happening mm-hmm. nga am somebody like Seydi Kane ñu ko téye ko dóor ko soo gisee ko dala yaramam yi xar-xar yi kring kanam xam nga mm-hmm. so yow nga bëgg a ñëw négocier kooku noonu te yow doo négocier padiyam every week mm. nee na padiyam every week padiyam padiyam baa ngee toj dëkk bi mu ne ko padiyam baa ngee toj dëkk bi foofu nekk nii luñ war a wax dafa bari ñu dugg ci Bakary Badji rek parce que léegi tey ah, waxtu bi jeex wax neex na suñ ko fi toppee eh, tey dañoo dem a dem rek te ñu ngi or su nekk nii man dama xalaat soxna sax <laughs> li ñu war a wax. yow nag yow la koor gi gi dafa bari. fii suñ ko toogee di wax duñ ko mën a jeexal rek nañ leen sànni xeet nañ leen wàllu nekk waaye wax leen parce que comme ni ma ko defee saa yi nekk léegoo léegi nga wax sax ñu nekk anti government ñu toog ci foofu noonu xas la saaga la defal la woon buñ nekkutoon si government bi ñoom ñoo daan saaga yaay jëm mm-hmm. parce que ñun buñ fàtte ma nga man 95 laa bàyyi di support yaay jëm te li ma wax ne ñi ma dëkkal xam nañ mm-hmm. man toog naa 7 years bi ma toog si daan GRTS amon ma si solo. Mm-hmm. amoon naa opportunity pour nekkaat am directoral directoral post juriñ yaa jëma si ko xam ma bañ koo jël. am na ñoo xam na jege nañ ma lu nekk la gaa amuloo fula lo fenn amul na bëgguma parce que gëm na ne nguur bii nii ku si nekk tey tamit ëllëg di nga rëccu lu nga bokk parce que man finance laa jànga so am na yoo xam ne nii su ma ko gisee damaa xam straight mun loo maan mun ngaa na ordinary man xam nga nga waaw mun ngaa na gis na man dama def gaa économics ah mun nga koo waxee lu nekk waaye gis nga ki nga xam ne mooy génnee Dakar jox njabootam dem si marché bi kooku économique boo ko mun di wax ne mu ngi grow <laughs> te every day lu mu gis ne lu moo fay mu ngi yokk économique boobu amul njëriñ économique bi amul njëriñ ono sang so mhm. nañ bàyyi di naan nit yi abaat waaw Gambie économique mu ngi grow 10 percent am nañ fokka loolu amul njëriñ parce que man man finance sa jaga I can understand te xëy na dinaa mun a relate waaye su ma demee si marché bi ñu ne ma ne démb saaku maalo 1500 la tey ma dem ñu ne ma maalo 1700 sa economics indicators yoo nga ma ban njëriñ la ma amal man. ban guro la guro la. so amaluma njëriñ so nañ nañ def lu nga xam ne nii moo moo moo tegu si yoon nga xam ne di ordinary man on the street dina ko feel dina gis njëriñ. Mm-hmm. ñu dugg ci bàq sa doomi ndey. bàq su mm-hmm, sa xarit am ñu gis ne ah, jamono ah, lii di mayoral election si passé nii nga saf sàpp si wàllum politique te ñu ne bëgg loo nguur bugguloo liggéey ci nguur xam nga buggul affaire yi ñu gis nga saf saf de and ak bakari te bakari mu ne mom ah, ndaw ya ko ah, ah, nagam ñoo mobilise taxawal ko pour mu nekk ci nii la yow su ndaw nga boka wala naka la fa taajo wala da nga bëggoon su baax jëlee mu tek la place bu baax. non waxtan wa digana ci la bobu man mi gaay di decide pour tana sa ndaw mm-hmm. campagne bobu lima ci dugal. Mm-hmm. bakari mo tax ma dugal mm-hmm mënoon nañoo nekk mënoon naa nekk beneen candidate mhm. te du ma si dem mhm. parce que mooy man li ma dee wax rek lépp lu ma dem ba war a taxaw pour wax si mhm. wala ma war a taxaw serde nit dafa fekka ma xam la sa jikko mu doy ma parce que sa jikko su ñu sax la garanti man façon nit boobu noonu la parce que bi foofu baakaar man Papa mu ne ma dafa taxaw airport lañu tese mo na bëgg parce que moom xarit la ak suma mag hmm. ko ma bokal ben dërëm hmm. ñom xarit la ñu def time xalé ya ba mag so bu mako koy ma ko ah lolu day is good ma ne ko waaye suma ndamba mu ngi ni kool ma ñu wax parce que lu tax man hmm. lepp lu mo wara dugga dugal dama wara xam lan la parce que du xaalis lo ma jënd amut xaliss bu ma nit mën a jox si àdduna tax man ma jaay suma ngor amut du place amut place bo ma mun jossi ko suuf bu tax man ma jaay suma ngor du def parce que li ma gom mooy li ma war a doon yàlla bind na loolu balaay man may ñëw àdduna te kenn mënul si dara. Mm-hmm. dafa am parce que loolu la yàlla si su ñëpp ñëwoon bu ko laa moom lim la bëgg a def mënul si dara. Mm-hmm. bàyyi foos dafa nekk Adama ah, Barrow kenn xalaatutoon ne sax kenn moom si moom xalaatu ko. Mm-hmm. waaye lu yàlla bind la si moom balaa mu doon ñëw si àdduna ak lu mën di am ala kulli xaal daf doon xàppun. waaye nag lu nekk si xàppun yàlla daf ko jaarale si ay nit. understand so bi ma waxee loolu ma ne ko ah léegi kool ma ñu waxtaan parce que lu ma bëggoon a xam si moom mooy ban façon programme la am pour waa KMC. Mm-hmm. parce que man du ma dem wax. Mm-hmm. ngir diggee kese rek déedéet. Mm-hmm. loolu du ma ko def. ñu tusewaat second time moom ma ne ko bro ma ne ko danga maa wan plan bu nga xam ne loolu nga am ma xool ko su nekkee man lu ma lu ma li ma d'accord la. ak li ma gom amul problème ñu toog ay mons deful ma dara waxul ma toog benn dee bax mu seen ma mail. te comme loolu sax man xam naa Bax. waaye mhm. xamoo woon ne dafa bëgg a taxaw. Mhm. waxtaan wax dëgg si la bokk man xamoo woon. mu ne ma dafa am ñu ma approche pour ma taxaw meeral élection bi ñoom te dama bëggoon nga endorse ma benn ba pare nga bokk si team mhm. team Bax. waaw ma ne ko yee ma ah, xam naa la in terms of yow sa caractère moom mun naa taxaw ma. garanti la fu nekk si àdduna mhm. parce que xam naa ko koo xam 16 years bu days koo xam ne every day mayu so leen wàccee liggéey sax yéen a day nekkat ba tëddee jot mu dem tëddi soo kooku war nga ko xam te jamono bu ma ko xam yépp def li man musuma def lu nga xam musuma gis mu def lu nga xam ne war naa koo mën a wax ne ah xeer naa ko oo am naa ñaari xeer suma yow ban yaakaar nga am ne vax ah, dina wéy nooy ne amul qualification bi. am euh, qualification pour la. pour naka la expérience bi kay pour nekk foofu noonu ak yooyu. tali ku fa nekk right now nii Bax moo ko fa expérience. su nekkee expérience rek la hmm. mooy tax nit yi falu non tali bu fa toog in terms of council governance Bax moo ko fa expérience. man li taxoon moo gëm ne Bax dina win mooy. Hmm. man dama xam suma boppa te mun naa taxaw suma loxo ma ekkati suma loxo biir Gambie fii waxuma la Gambie bi ne soxlaw ma alali jambour musuma jël alali jàmbur du mhm. duma ko leka te duma duma duma ma dem ma fenal nit mhm. duma la wax tamit lo gomu te ragal mo domi adama way joxna nit ci respect parce que xam nga fi nit dañ de jawale respect ak ragal mhm. du ben mun na la respect fek ragal mo wala sant te man xam naa ci si fànnar yooyu noonu yeb bax moma ma si parce que bax moma ma gën moma gina moo ma gina honest moom a gën a dëggu mm-hmm. te moom a gën a bugg a Gambia mm-hmm, parce que lu tax ma wala loolu mooy man bi ma jeexalee school force lu ma njëkk a def mooy naka laay utee xaalis moom mu dem ñun ñëpp dañ nekkoon youth volontaire youth youth organisation mm-hmm. man nekk naa Red Cross ay yees dem naa ba nekka national emergency response team member of Gambia Red Cross Society nekka naa président of team nekka naa scouts xam nga soo yii yëpp def nañ ko waaye bi ma jeexalee que naa plus ambassadeur man si ñu ko njëkkal lifin si laa bokk waaye organisation si yëpp after matuma sen time parce que lutax puti mm-hmm. halis xaalis moom ak moom moom ak itam mm-hmm. moom mu bàyyi ñun yëpp continuer di liggéey ci Community, té mm-hmm. te ñëpp xam nañ né liggéey ci community amul halis fa am ay ñaan mom nit nañ la ñaan té ñaan ma lo ci kër wala so why, mom su mu né def lolu kon man dama gomné ko kooku moom a so man yaakaar boobu noonu laa amoon si moom so moo tax ma ne ko ne léegi da nga maa wan yow ban son plan nga am pour KMC parce que su ma warutoon plan tamit man du ko support du ko du ma si campagne bi dina ko saanil parce que xam naa ne su fa toogee lu mu dégg nit yi dina ko def parce que xam naa ko 17 years 16 to 17 years ku nga xam ne lu mu la wax tey fii ba déwén mooy nekk wax bi mu laa wax so Bax du génn si waxam te du farkat waaye demoon nañ ba nga xamante ne team Bakary Badji ak ñoom Papa Ndiaye ak yooyu yéen a sànni wante eer ay yooyu yéen a post di bind yow ak ñoom ay dara karaara fële ne ah, di xam nga. du sànni wante xeer parce que ñoom Papa Ndiaye. waaw Papa Ndiaye ak teamam baak ak ñi fa nekkoon ñëpp luñ doon wax ñoom xam nañ ne waxuñ dëgg parce que man du ma dee jëw nit moo tax ma mm-hmm. def ko direct. waaw moo tax duñ dee wax duñ doon wax. la xaaral ma expliqué la gis nga team Papa Ndiaye. Mm-hmm. Papa Ndiaye si boppam ak ñi fa nekkoon ñëpp ñi nga xam ne ñoo wax loolu. duñ mm-hmm. doon wax dañoo fen. te soo leen tegalee alxuraan kenn du waat ne lu am la. Yankuba si Sidi Ndiaye ñëpp dañoo fen kenn waxul si dëggal lu ngay wax si bàkkaar te ko si tegal alxuraan du ko ah, waat. Eh, non kaay ñu xam rek politique non Bakary musuta nekk ak APRC am nañ xarit man musuma nekk ak APRC am na ay xarit am na ay mbokka yu nekk ak APRC tey la nit di toog di bañ ne bëgguma bokkuma APRC waaye jamono yàggul two years ago three years ago fii gars yi APRC la gars yi daan dawal from businessmen yaag ñii ni ñëpp bu ñu na parce que ñun ñëpp ñoo fi nekkoon so tay su ñëwee di tànn kan moo nekkoon Ibrahima kan moo loolu yi ko hypocrisie la man musuma bokk si ben politique party moo tax Sidi Ndiaye ne yéen ñi carte yi ngeen am yu carte non Sidi Ndiaye boobu dégg xam nga Sidi Ndiaye non xam nga Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye kaa su la man dama amoon ay xarit yu nekk ak APRC ok mm-hmm. karara bi nga woon man suma jarbaat la ñu daan tëdd benn la waaw non APRC la woon ñu daan tëdd benn la mm-hmm. ñoom ñoom xam nañ sax man maa ñoom mm-hmm. ak lu ma dee ruus yëpp dañ daan classe si affaire APRC ak ñaakaat ak li fi ne parce que man gëmuma woon APRC te musuma ko support understand am na yu nga xam ne nii jaru sax di ko ma di ko amul solo ñoom Pa Malick man suma xarit lañ understand dañ daan di waxtaan waaye man gëmuma APRC waaye jamono boobu noonu ñi fi nekkoon APRC nii tey toog di wax naan APRC lii ak lële man gëmuma ne parti daf dee bon xam nga man la laa gëm ne mm-hmm. ñiy si jamono benn jamono bu mu toll ñooñu ñoo bon mm-hmm. man mosuma bokk benn political party ba Gambia daj mm-hmm. waaye nag am na ñu nga xam ne dama leen respect parce que man 1992 laa nekk suñu dëkka Halifa Sallah Sidia Jatta ak Sam Sarr ak Ansila foog naa ñu ñëw suñu dëkk time bu gaa ngi amee benn Land bu weex mm-hmm. ak benn gele gele Land bi sax si gannaaw dafa toj mm-hmm. weer bi dafa toj ñu dafa plastique mm-hmm. gaa yi ñëw ñun suñ dëkk PPP la suñ kër foofu mooy naka laa tuddati askan wi PPP si ñoomi doo ñun ñoom onkul Oje ñii ngaa gis nii. Mm-hmm. dañ daan jógee fii man suma raka bu jigéen ñu ngi ko tuddee jabari Oje am na am na am na am na Awa Diop. Mm-hmm. suma mag ñu ngi ko tuddee ndem si yàlla Lamin Jalo Sonko nekk am ministre suma beneen mag ñu ngi ko tuddee si Cissé nekkoon Sénégal Insurance. Mm-hmm. understand so man si këri politique laa juddoo politicien yu mag. ñu xam politique bu baax demul school de waaye dañu xam politique de. Hmm. mais ñii dañ daan jógee foofu di ñëw weekend suñu kër indi wàllu jaliba kon tàmm jaliba amul baax sax benn roquet euh, roj la benn jigéen daan amee moom muy xalam ko di dóor kok kok kok kok soo loolu du tey soo moo tax gars yi suñu dee wax politique dama la dee gis nga politique man politique yi fan donc soo man foofu 92 si laa dégg Halifa Sallah mu wax ak Sidia. Hmm. ma ne ñii de xaw ma leen. Hmm. waaye definitely like naa seen wax so since then man si laa nekk di follow. ñom khalifa mm-hmm. waye nak officially duma member of doy waye i have huge respect pour gars yi doy parce que xam nga lutax ñoy di only consistent politicians in the history of Gambia te ñoy di mm-hmm. only politicians yu nga xam dañ deggu ba pare mm-hmm. soxla askan bi ak soxla Gambia mo leen fa jiitam benen politicien bu mundi mun nak ah respect na la de waye dama ne man la la wane Gambie suñu bëggee changes bu xabu waxuma nañu jox ko doy de waaye nag ay cëg ñu nga xam ne am nañ jikko yu mel ni comme ñooñu mm-hmm. ñu dénka leen dëkkal mm-hmm. fekk defuñ ko duñ dem kanam mm-hmm. so ñoom yanku ba Koli Sidi Ndiaye ñooñu lu ñu doon wax yëpp waxi fen te ñoom seen boobu xam ne dañoo fen parce que xam nga lu tax ñoom Sidi mu ne si biir campagne bi dégg nga ko Panderi interview ko Star FM mu ne Bakary Mousta Boka APRC Bakary UDP la moo tax mu daan ànd ak UDP di di Bakary bi moo xeex yaa ngi na fekk Bakary mu ngi Gambia. waaye moom si ah, mooy fen mooy xam nga fenkat. Mm-hmm. xam nga kan gis nga nit ki nga man lu ma dee gom mooy gis nga nit ki soo nekkee da ngaa wax dëgg. Mm-hmm. da nga dee constant. Mm-hmm. lu ma la wax tey soo ma laajatee ëllëg moo taxaw di same thing ma wax ko. wala yow in within two weeks def nga ñaari façon wa te loolu ma la wax ne Sidi benn amul xam-xam sa si lu ma wax parce que maa si ñoom Sidi. Sidi bu Yaya Jammeh demee bi amatul kenn ku mo fal si la dora a du gis Sidi ñom Sidi boy boy lañ won APRC trust me parce que Sidi amul non nañu wax dëgg rek xam nga Sidi tay ñu nga xamne tay ñu amone place bi APRC tay mo ñom Sidi ñay bokku ci parce que Sidi ñoom Pamali sax ñoko jidi won dama Pas mal non ministre bobu non ñaaka pexé la parce que Yaya Jammeh fal na bi amatul ku mo fal bi ko jamono bobu ku stupide rek la Yaya Jammeh di fal dama ne jamono boobu noonu ku stupide gaa ma la ne jamono bobu ku stupide ida nga stupide wala nga greedy si la la yaay jëmee di fal ministre yi nga jël ko jamono boobu ku si nekk am ministre yi either da nga stupide wala da nga greedy san nga parce que jamono boobu yow sax bopp xam nga ne nguur bii mun na taxaw xaaral ma profité balaa ah. man loolu laa gomoon si moom mm. te candidat su taxaw yëpp am naa respect pour ñoom mm. waaye man dama gom ne mm. te ba ëllëg loolu laa gom amul kenn ku nga xam ne nii déggu na comme Bakary si ñoom amul kenn ku nga xam ne nii si ñoom ñu taxaw ñëpp laa la si lu ma xam Mm-hmm. ku nga xam ne nii tey sa loxo set na. Mm-hmm. démba balaay tey comme Bakary ku nga xam ne nii tamit nekk nga fa pour askan bi démba. waaye seen campagne bi noonu leen doon campagne yi da ngeen doon def comme ni ñu ko waxee ne yeneen gars yi noonu lañ ko wax di dugg ci kër yi di joxe xaalis ak yooyu noonu affaire yooyu noonu pour sànni leen. maa yooyu wala commencé di defar ay marché. campagne boobu su ay bale ay yooyu. campagne bi passé gis naa léegi na gaay dem la danga pandari ma ne ma ne euh, lii woon gaay yi bi hmm. naate la woon ëllëg na gaay dem oo oh, gaay ne ñun suñ koñ suuf wala ay trogi xeer gis nga nit ki lu du dëgga du yàgg hmm. te man naa ko de wala nit ki lépp looy def baakar soo ko laajte seen na la wala force bu ma njëkkee waaw moom la ko ma ne booy ma ne ko mën na politique bu Gambien si doon politique su nekkee façon politique boobu nga bëgg def def man ba kaanu ak man ma ko bokk mooy politique yi naaxaate man ko parce que man dëgg la bëgg naa la def ne waaye nag suma ma bokkoo ma la gënal. du bañ naa non te yow doo tax ma taxaw di fen ngir bëggalu la ne du ma ko def so moo tax lépp lu ñu wax nit yi dana nekk lu nga xam ne lu leer lu dégg la te suñ bëggee def loolu mooy nañ am constant message ñu am programme ba pare ñu bañ di joxe xaalis wala di jënd ay nit moo tax campagne bi soo xoolee ñun dem nañ bëgg ba indi ñun ñoo nekk di liste lu ñu spend si xaalis amul kenn ku nga xam ne nii sax spend nga neyaali tuddal ay 6 millions parce que man am naa candidat yoo euh, ah, ñun loolu si loolu lañ nekkoon te loolu lañ ko comme ma jox la exemple comme tey man. Ah. am na ñu nga xam ne man ah, bëgguma ko kaan ma expliqué xam nga man am na yoo xam ne bëgguma koo wax. parce que mm-hmm. bu ko doon def. suma diggante ak yàlla moo tax def parce que man lolu la gom te lolu mm. lay nekka ba ila yomi diin ba besu mo sango souf ci mm. lolu la ñaan yalla ma nekka ci moy mm. gis ko xamna ni warna la mëna dimbalé ma dimbalé la mm-hmm. ak nu mu mo xam si advice la mo nekk mo xam ben book la la jëndal wala pencil wala pen wala whatever wala mo xam mm-hmm. suma ñi ma liggéeyal la ma change sen life man lolu la gom mm-hmm. te ñun ñëpp si lolu lañ nekkon way xam nga do mëna dem every day every week ngay def lolu noonu ngay nekk di balé ko ñi di dem doo mëna possible su ñun luñ gëm mooy ba no tamit non non ñun mosuñu organise ñoo ñun mosuñu organise campagne yi Timba Kay mosuñu organise set setal si biir campagne mm-hmm. ok nit yi ñoo daan organise set euh, setal gars invite ñu ay few people ñu ne ba waaye comme ñun ñu ne tey dañoo organise set setal non parce que ñun dañ gëm ne loolu du suñu responsabilité suñu responsabilité mooy ñu am programme ñu jaay ko nit ñu jënd ko Bakary su fa toogee mu jóg si soxla askan bi jël xaalis si KMC bu nit yi di tax dem liggéey mbalit waaye du ñun ñu génnee suñu xaalis dem jël ay tourne la ñu sétal setal pour di sànni ñu ñoo kon dafa melni ñun ñu ngi jëndandi di sen kaddu ah li ñu léegi luñ wax né naka la dudaal bax ya ki daf ko o oh, tali pour mu liggéeyaa moom boobu naka la fa démé loy wax ci lolu lolu mom man yeguma lolu waxtaan wax digas la boobu xamna né talib déglu na ko ci bir campagne bi mu ne. Mm-hmm. he has enormous respect for Baxter. Mm-hmm. te bokk na ci ñu nga xamni fil na laaj ne war naa mën a liggéeyaa moom. Mm-hmm. te su nekkee né lolu lu mu def la. it's very nice parce que man li ma gom mooy. nit yi nañ bàyyi pour Gambie dem kanam. Mhm. after elections. Mhm. ki nga xam ne moom lañ ciy fal. Mhm. na choose a winning team not based on political party wala head, wala askan. parce que the thing is ëllëg soo amee positive results. nit yi yoo la ñoo wax soo amee bad results tamit yoo yoo la nit yi di hold accountable so talib su fii lee ne Bax. wala Papa Ndiaye wala anybody outside ku nga xam ne bokkul si benn political party sax wala Adama Ba wala anybody. war naa mën a bokk si ci moom war na koo mën a indil dara mu def ko man loolu dama ko rafetlu hmm. waaye nag to be honest man yëgu ma ne yëgu ma ko su nekkee am na moom rafetlu naa ko waaye su nekkee ne am na tam lu ma rafetlu la te hmm. su nekkee man la tam dama advice pax na mu jël ko parce que lu tax ñu ndaw lañ dañu war a change the dynamics of politics in Gambia hmm. mooy a winner takes all a loser lose all yooyu warta happen dem ngeen élection nit ki win na moom la ñu ci jox mandate moom la ñu moom la ñu ci dénka su la ooyee neel kañ liggéey su nekkee yow soxla askan bi moo la ñor comme li nga wax da war a dem nga àndaa moom nga liggéey warloo seen ne kii ah, ko ñu ne daf ko oo moom waaye daal Bax ne moom non. comme que yow yaa ngi ànd ak Bax nekk ak ne oo na ko parce que lu balaa ngaa oo ni kii di ko offal liggéey day inauguration kon mu invite mm-hmm. understand kon invite leen. Mm-hmm. invite ko non man amu si problème sax man su ma invite sax man mënoon naa dem su nekkoon ne date bi suma dama doon dem parce que man doomi KMC la dew ma ngir ne dañ ma invite waaye mm-hmm. damaa dem ma toog ma déglu lu gars yi di wax mm-hmm. man sax nga pour ëllëg ma mën a xam waaye li ma fiil mooy ñoom su ko invité pour gars yi damaa rafetlu loolu parce que gom naa ne Bax mun naa indi mun na koo indi loo xam ne nii njëriñam la moom tamit Mm-hmm. parce que municipality bi su amee positive review in the next five years. Mm-hmm. dëgg la sa collective effort Why ninety percent bi will go to him as credit. Mm-hmm. parce que moom moo nekk di lead moo nekk di head why tamit yàlla ñaanal ma ko ko yàlla tamit su safaan bi amee tamit. 99 point 99 percent yooyu suñu xool nañu ko def day sànni kàrta bi yooyu noonu ak after ñu announce results yeeg yooyu naka ngeen gisee affaire si feyaana wala naka ngeen gisee naka ngeen dundee woon day élection bi naka la ci Bakary Badji defoon élection bi da ngeen doon del jógee comme gars yi ñu doon def di dem one place from another wala naka def nañ lu loolu def nañ ko parce que lu tax ñu def ko mooy bi amee ay calls from certain places comme mm-hmm. Ibo Town ñu woon ñu ne bul bi demoon nañ foofu tam ñu ñu dem gis ne loolu tam dégg la lu am la ah, xamuñ nag ñaata nit ñoo dem si suba bu gasaane loolu mënut a dem trop ñu dugal ko feneen wala ñu ñibbi yooyu yëpp mën naa possible ak boori 12 tam amoon nañ kool tamit ne fële naka la yi sooy dem boori abu boor foofu si guddi bi day before election ñu ne gaa yi APRC dañ dem wax doolaay nekk foofu noonu ne Bakary dafa. dans un PRC so ay si duñ mën a génnee box and waay moom mo rambo yëpp la after dañoo boole seen resources so loo gaay di sànnil box na gaay sànnil rambo yëpp benn mm-hmm. so ñun balaa ñoo yëg loolu fekk ci boos tout lépp ñu ko yëgee itam dem nañ fa xam mm-hmm. nga wan nit ne loolu amul waaye ñaata nit ñoo dem sànni sànnil rambo ngir wax boobu noonu ñu wax ne mooy mm-hmm. comme li ma la doon wax rek politique bi ñoo suñ ko bàyyi dafa difficult pour ñun ñu dem kanam lu tax mooy dañoo dëkka si ñu nga xam ne ni tey nekkuñu ci waxati dëgga mm-hmm. ñuy falu ak ñu nga xam ne ni ñoo am xaalis parce que xamal nga lu man su ma amee xaalis mun naa dem ma jënd nit ñu sànni ma mm-hmm. waaye fekkal liggéey bi maa xëccul noonu xaw ma si tus mënu si tus wala su ma intéressé askan bi sax taxut ma jóg mm-hmm. su ma intéressé boppam personal interest moo tax ma jóg wala am na benn group bu nekk suma gannaaw boo xam ne duñ feeñ waaye ñooñu am nañ interest soo loolu moom moo nekk li waaye ñun luñ def rek mooy yàlla def na ne comme Bax nit ku am féet la parce que man dama ko yàgg a xam. Mm. xam naa ne ku am féet la te ñun ñu fa nekkoon ñëpp tam ñu am féet lañ xamoon nañ ne bi ñoo dem ñaari ting moo mun a happen. from the beginning xam nañ win or lose waaye ñun dañ amoon hope ne dañoo win. parce que liñ dem si askan bi nit lu ñu wax ak lu ñu gis waaye nit yi tamit dañoo wax ne ñu leen toppoon noonu mbojo mbojo boobu noonu. amul amul naka ay mbojo mbojo toppuñu parce que xam nga lu tax ma wala xam nga lu tax xam nga élection. amul amul ñoom day before élection ñu dem di joxoon mi di ay ten thousand dollars pour ñu change seen mind Mhm. su nekkee dañ gëm ne mboño mboño la ma la élection bi am na ñu spend 7 millions de dollars. yéen leen di joxe. because gis nañ ñun gis nañ gis nañ nga xam ne nii ñu ngay joxe xaalis. joxe 200 lu la gars yi di joxe 10000 15000 20000 dollars su nekkee ñun mboño mboño ñu toog parce que ñun. Mhm. man campagne bi from day one ba di last day kenn du ma ko wax. Mhm. ñun dañ daan toog billahi maa ngi or ay nit toog ba ay 12 o'clock 1 am si guddi ñu xaar pour Bakary ñëw toog waxaa ñoom. te ñoo xam ne nii ay kilifa lañ ay mag ay groupe Mhm. so ñooñu su nekkee ne jaralul lañ ko duñ ko def mhm. timis dañoo doon doxi seen soxla mhm. so nit du toog di la xaar ay 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours so ñoom soo leen laajee mooy udp udp political party la this is not the first election the udp contest waaye mun na la wax ne udp luñ spend si mayoral election bii nii as a party pour jot tawu bii nii amul benn election bu gaay dem in their history bu gaay spend even quarter of that so lan moo tax is because of the ñun dañ ñëw ñu yóbbu politics bi to a level boo xam ne nii dëgg la it will take time pour nit yi understand parce que right now nii Gambien si ah, xaalis bi moo la gën a itteel parce que dëgg nag dëgg nag nag politicien si loolu moo tax moo moo ko benn daal. mu ne ma mm-hmm. mu laajte ma nga foog ñii dañ dañoo di jot ñu xaalis ma ne ko politicien ñoom loolu seen traite la. Mm-hmm. dañoo sonal askan bi toroxal lañ toroxal lañ bañ bañ walaa kaana especially soo demee two years before election. Mm-hmm. ñu gis ne askan bi ndóol nañ sonna nañ. Mm-hmm. election su jotee ñu ñëw dugal si nit di la may benn saaku maanaam pour nga sànni leen kan. Mm-hmm. parce que xam nga naka la mel tey man ma dox si ay kilomètres ma mar. ma mar ba bugg a dee ma gis ni ma téen ma gis kenn ko amee ndox. nga jël sponge nga diib ko si biir ndox bi nga jël nga presque tuuti pour ndox bi ma bi ba pare nga ma ne dinaa isi moo ndox xam nga dama am yaakaar. because maa ngi sonna. noonu la politique africaine mel. Mhm. politiciens si dañ leen sofaloo di population ñu walaakaana soona. dañu ñëw di la léegi yéen gëmoon ngeen ne eh, élection si feeyaanaat yooyu noonu. waaw man résources yi noo leen ko yéen noo man personnellement lu ma mhm. gëm mooy. waaw am na mishaps yu xapul yoo xam ne ni jaarut yoon. Mhm. waaye nag si KMC. ne bi based on nit yi ñu sànnee carte ak si day élection bi lu mun di xapul tamit. du doon mun a change résources yi. naka la mëna démé demee at the mhm. dégg before the election lu xapun lu play na big part té lolu ay si ñoo jël sen responsibility mhm. defuñ ko mhm. xaw ma lu tax waaye foog naa loolu yëpp lu ñu wara a jàngala parce que loi bi dafa clair nit ki waruloo mun dem di joyé xaalis wala di jëndani di sen carte lolu su liga dañ wala kick out out by nga génn mais gis nañ tamit euh, ñu d'accord né loi bi lu mu wala dafa clair ben candidat du mëna use ben political party color Mm-hmm. so ñu ala Papa Ndiaye mu use coalition color loolu mm-hmm. man blame mo Papa Ndiaye gis naa di don attaque Papa Ndiaye ba Papa Ndiaye is not to be blamed Papa Ndiaye dafa dafa parce que Papa Ndiaye moom UDP la taxawaloon ba pare after after buñ gars yi defee seen primary ci yu noonu mu gën mu dem taw a UDP xëy na mo mu taxaw moom laa warta use coalition coalition ak fu mu mun taxaw mm-hmm. warta use coalition la si parce que loi bi moko wa du man waaye ay ci ñoko ala lolu mu jall ha nga lolu do ci blame Papa ay ci ngay blame wa wala sanga ok comme pour jox exemple like iwo tang bul yooyu noonu ngay don sani pour mu dugasi si box si baaxari mënut a mm-hmm. nga ay si ngay blame mm-hmm. te lolou dafa am impact tamit si result si nga xam ne tamit ñata goals la bakari am mm-hmm. way ndax overall dina mëna change the results itself at the end of the day lu ñoo ci cegaat la way so ci bolé lu happen before election bi ak election day yeah muna na play a big part pour change results because gis nañ candidate si di génnee xaar di jëndandi di yi deliberately te ay si mu ko gis so ku nga xamni nak mu ngi xalat dépenser ëlëk nga ñoo dool ko tenta dala ci way automatiquement ko dama sani so ah, ni di ñoo wara askani gambe ñoo wara dina fonka seen réew loolu laa dee wax saa rek askan bi ñoo wara baye eh, xel bu baax parce que yaa sa karta mooy sa doole te sa karta mooy sa kàddu te foog naa ne képp koo ko war a bugg a rek war ngaa sa xam ne kii su ma ko fa tegee dina ma mun a defal li ma bugg dina mun a yóbbu réew bi si kanam du fa toogal boppam loolu yëpp am na solo soo dañ dee war di bàyyi suñ xel si jamono élection si su jotee Aziz day nekk si jeexalante bi ah, naka la daal ci programme bi parce que luñ fi war a wax yow foog naa la ko. dafa bari te yoon yoon di nga soo <laughs> bi moom Tambambalu bi moom ku nekk ci gis boppam indi woon nañ bax indi nañ fi ñeneen ak ñeneen ñoom Papa Ndiaye yëpp ñëw nañ fi soo moo tax comme nu ma ko dee waxee rek soo bu nga xamante ne dañoo ñu ñu wécci wante xalaat ñu waxtaan ñu leeral yu baree baree bari yu xewoon xam nga tey li nga leeral ne bax wax nañ ne parce que suy naka la taalib su oyoon bax yow di nga ko parce que waaye vax xam naa ne talib wax na ko ne baal ma leeral leen mooy biñ ko biñ ñun biñ mm-hmm. ne demul si suñu féewoo après mm-hmm. indi féewoo talib mm-hmm. ñu toog xaase groupe ñu ñun dañ ñëw ici si politique gaal te comme nañ ko di si beginning bi bi si cappaandaw li fu mu jaar ñu matal loolu mooy fu mu jaar bax mu xool talib mu congratulate ko bax xool na ko congratulate ko après talib laaj da ko ndax da ngaa dem delluwaat Amérique Bax na ko noonu maa ngi fi. Mhm. waaye Bax promission na ko ne anything loo fiil ne like ñun luñ mën a def la suñu xam-xam. Mhm. te mun nañ la ko advice suñu laajee suñu xalaat nañ la wax. Mhm. so talib na ko after lii yëpp su passé sa dinaa try ñu organise ñu toog. waaye gëmuma ne comme like offer na ko job. pour mu ñëw liggéey ak moom si council bi. non gëmuma ne loolu am na su amee tamit. man damaa wax Bax ne mu jël ko parce que ñoom ñaar ñoom ndaw lañ. waaw man loolu laa doon wax because kan ah, nah, oh, gitu. nah, bi oh, ya, eh, ya. mm-hmm. ya. mu ko déggee ne Bax xam nga askan bi moom dañoo xëy Bax doo ko oo because Bax su doon place bi doon xeexal te yëpp pour benn KMC bi dem si kanam su ko kii ooyee war na moom xam nga kuy bañ mooy ki nga xam ne nii dafa am xol iñaan xam nga Mui tey mui tey su nekkoon ne dafa am xol iñaan mooy kon kon du kool tànn. waaye meroon ngeen nag de. non meruñ na yàlla meruñ. mer mooy. gis nga yàlla mooy li ma lay wax rek mooy nit ki. dabax waaye meroon ngeen xam nga. ne nekku ne da ah, nga ko amal di ñaan wala di disappointment li disappointment am nañ ko am nañ disappointment. waaw am ngeen disappointment waaye meruñ am nañ disappointment bi bu ma am man personally especially mooy ne dama gis ne waa KMC dañ leen tegal arjana ak safara gaa jël safara maanaam kii waaw non parce que bac mooy non waxuma taalib de dama ne ah. candidate su taxaw yëpp laa la waxal ni Bakary is the only candidate bu nga xam ne moo teg programme bu nga xam ne programme bu leer la te yoon bu leer la fu ñu fa jaaree ñu dem hmm. ñeneen ñu si des ñëpp ay wax yu naxasaale la gaa doon wax parce que li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël ah nga nañu wante dëgg rek. Hmm. man I don't have problem with anybody. di nga ñëwaat di nga ñëwaat waaw amoo problème ak kenn waaye dëgg bi moom mooy ne. Bac mooy the only candidate bu amoon programme bu taxaw. ragal féete day xëcc warsak ah, yow daal si batt nga féete te ñëpp. ak ah, Gambia ak KMC ah, gis nañ loolu léegi da ngeen a continuer si politique bi wala da ngeen a delluwaat Amérique. mosu ñoo génne politique. gis nga léegi Gambia bi dama la laajte Gambia bi yow waaye bax nga. léegi dafa dellu. bax wala dafa naka. non xam nga bax ñoom itam foofu lañ nekk. waaw toog na fi almost nearly nine months xëy na maybe after julli xëy na dina dem am benn time check family because xale bi tamit every time dañ ko def call di laajte even during campagne bi sax mm-hmm. xam nga so waaye pour ne ñibbi parce que la te Gambien la dëkk so du ñibbi fii la dëkk ah, politique bi mënuñ koo mënuñ koo bàyyi parce que lu tax ñun dañ xeexoon pour gis ne Gambia political field bi ëppoon na mm-hmm. so xam naa ne gars yi dinañ sànni xeer time yi daan wax su leen neexee ngeen wax ah, parce que nit ñi loolu la non fu man du ma critique ah, boo ah. xam ne non man du critique boobu man du ku nga xam ne ni tey damaa nekk blind supporter of government parce que man government coalition bi moom laa saani mm-hmm. understand nga te ñoom man musuma saanil APRC mm-hmm. I have never in my life musuma saalim ipiasi musuma jox yaa jame loxo musuma lekkam biskitam musuma lekkam maaloom musuma lekka sukuram musuma duwee sax billahi li ma la wax man dama non laajte dama nga laajte gaye man dama daan ñëw soo ma waxee ne maalo bi yaa jame moom moo ko may du ma ko coob ma xam nañ la wax a dama dee nit sooy wax si da a xam bu baax lekkuloo si biskit dama daan ma ne la su ma néeg ma néeg la la wax karara laaj ko mu ngi noonu da daan teg mbiskit foofu ay carton carton même jee du ma karara moom dee yaa jëmee loolu waaw non xam nga nit ki man loolu laa gëm xam nga man loolu laa gëm nit ki non man loolu laa gëm nit ki gis nga nit ki loo gëm loo gëm man suma sopotoon yaa jël dama laa wan ne hundred percent sopoto yaa te kenn du si mun dara parce que tax nga nangu ko nga bañ ko yaa jëmee dafa def lu baax Gambia dafa def lu bon Gambia wala sax ñaar yëpp la def waaye nag li am solo mooy man li ma dee wax rek loolu passé na lu am solo mooy ñun lan lañ mën a jàngal lan moo def ñun Gambien si ban rôle lañ play ba Yaya Jammeh nekka lu mu nekka parce que ñun ñoo ko def mu nekka lu mu nekk ñun ñoo ko si jàppale ñoo ko si support tay mo dama la TRC bi ñu bari ñu ñaan yalla mu am. parce que c'est possible sax mo tax gaay di serigne tous yow dina fi jógee parce que xam nga lu tax da nga gis jabar bo xamni ne mo moom moo dem boole jëkkëram ñu jaaxal. waaw waaw tëj ko. waaw da nga gis xarit bo xamni mo nii lu jabar jëk xaritam. yow dina jógee moo man dama neew gaay mané bu leen yaakam di TRC ak ngé mm-hmm. parce que ñu bari ñu ci biir système bi right uh-huh. now nii duñ nangu TRC am parce que ñu bari dañ ñaaka seen liggéey ñu bari dañ ñaaka seen business ñi ñaaka seen prix mm-hmm. parce que seen ay mboka seen ay xarit ñoo leen boole tabax li ma la wax rek foog nga ñëwaat. Ah, fi nekk nii ñu ñëw si beneen xaaju programme bi jeexanteelu programme bi. xam naa ne dama ko waroon a wax bu ma la koolee waaye bu fekkee ne bi jotuñoo wax loolu noonu. dañ fa am benn box bi nga xam la xamal na danga dee seetaan programme bi nii. am waaw foog na seetaan naa bu box ak waaw daf dee nekk donation bi nga xamante ne am lépp loo am rek. danga ko si def comme ni la ko waxee woon Gambian Talents askan baa ñu ñor te ñu ngee def lu ama am solo si askan bi ñu ngee dimbale ñi nga xale yi nga xam ne ñu ngi si mbedda bi amuñ ku leen fayal school fees xale yi nga xam ne amuñ yire ak yooyu noonu di leen dimbale si wàllum bugg ak fen ak yu baree bari ñu ngi ko def si askan bi di donate ay yire ay mbubb ay yooyu noonu am turu nit yi ñun tam yu ñu dee donate ñuy suñ ñu ñu dee seetaan suñ followers yi ak gan yi ñu dee invite ak ñoom tamit soo ñëwee rek am lepalo loo ñu jox rek xébuñ ko lepalo def rek ah, ci box bi am xébuñ ko motax say saa togué fi rek ñu wax la non non parce que Gambian tale ñu ngi def lu am am solo ci askan bi ñu ngi fay dimbalé ñu bare bare bare ñu ngi fay dimbalé artiste ñu ngi fay dimbalé musicien yi xëy na ah, place bu ñu nanda way jëf gi ndaw. non xam nga place bu ndaw lu lay am. Mhm. Ah, te loolu laa day wax especially young people. Mhm parce monyet nga ma ñëwee fii ma gis lii daf ma fàttali man bi ñoo door xam nga yéen tene ngeen sax office ñun amuñu woon office dañ anda dem di office di awal internet mm-hmm. di awal correct nit nañ la wax lu nekk waaye yow cegal li nga xam ne yaa nga loolam ñaa def boobu boddu en waaye la boo ko antan xam na xam nga mën nañoo dem kere jël yi invest ko office bu nice xam nga ku nekk wa parce que man ni patrol sa ko dama ko parce que yaa start stade lu nga xam ne soxlawul nga dunda dunda bu rëy boobu nga xam ne àddina bi dee su ko mënta yóbbu rek dafa dem da ñaari yóbbu mooy dem mm-hmm. beta nga stade small mm-hmm. nga grow te si wàllum dimbal moom mm-hmm. lu ma dee wax rek mooy fu jaar ñu dimbale wante parce que koo gis mu dem ba taxaw dafa am ku jàppoon si ko dox ba dox da war a xoolaat gannaaw nga xalaat yow li nga tolloo si situation boobu noonu ñi la jàppale woon loolu moo laa may xol pour nga mën a dimbale keneen. Mm-hmm. moo leen wane dafa tuuti de. li mm-hmm. dafa am big big big impact. Mm-hmm. man dama te dama xam xam na yow nga ok man dama ko <laughs> ma xam ñoom xam nañ man bu ma dee pause yooyu noonu dafa am yoo xam ne nii si man. it's always private mooy comme like suma famille. It's always private because Musa gives my post my Facebook. Mm-hmm. I can write a lot about her, but I gis ne dara. su ma amee jabar tamit ak doom du ko def. am yàlla baax na yàlla ñëpp na <laughs> am waaye xale yi ñu ngi ñëw de. waaw xale yi ah am dama daan am jamono bi ma toll si loolu waaye you know. right three four years ago I decided to focus on suma bopp duul leneen nag leneen waaye na nag waxtu bi jot na nag su jotee rek dina am waxtu bi jot na léegi. waaye li am solo mooy. Mm-hmm. fu mu jaar ñu dimbalante Gambie dafa ndaw. Mm-hmm. parce que am nga lu tax tey man maa ngi spend xëy na maybe xaalis bu bari. su lu nga xam amul solo si man amul solo si askan bi ah waaye soo jëloon benn paquet bu wala nga jene bena school fees bena tam dama la jox exemple comme tay man lu tax ma génne Nusrat tey man ñu sax mo ne nekkoon suma dream school parce que ñaka fait school fees la mënu ma ko wona a afford waaye jamono boobu nga su ko benn nit ñaar ñetti nit ñoo leen tuggé la ñu ne xaaral ñu jàppala ñu jàppala ma xam nga ko kon na doon graduate ñu Nusrat loolu man su ma toogee ma xalaat ko damaa xalaat ne daal lot of kids. Mm-hmm. ñuy undergo through that ñuy loolu noonu. Mm-hmm. so suñ gisee comme la li ngeen nekk def lu moo def mooy. Mm-hmm. daf ñu offer opportunity ñun. ñi nga xam ne ni xëy na mënuñoo dem direct to those kids. ñu jaar through yéen. pour gis ne loolu àgg na si ñooñu noonu. te man lu ma dee rek bari na tuuti na loolu mu solo li solo mooy énebe. parce que nit na la may million. te kat idée bi gis kan moo tax mu def ko. du ci am fay mm. su nit dina joxe dalasi fekk yàlla xam na ne dalasi boobu noonu la dese waaye idée bu mu ko def daf ko idée moo tax mu loolu moo am solo. Mm. loolu man si loolu man si comme li nga wax nii man si loolu laa judd ma yaru parce que ku mm. xam man su ma ko xam si loolu moo ko xamee parce que ñun lépp suñu kër lañ ko béy mais dañu am néegi gan dañu am boole gan. suñ yeggee añ dañoo yàgg añ. tiba benn bool ñu naan pour gan bi five o'clock nag ñu commencé taama ñu nekkandoo dañ dee ñaan yàlla bu gan ñëw pour ñu jóg. ngeen konka bool bi. xam <laughs> ko defee da baax ma bàyyi la rek nga tàggatoo dinaa fi dinaa fa def dara waaye maa la ñoo gërëm. di la wax ne yow tamit apprécié ne ñëw bi mu fi wax. Ah, ñëw à a près kër gi sa kër la. anything nga am rek comme ni ma ko doon waxee saa yi nekk Gambian Talents lu nekk la joo dem. right now ni ñu ngi am ay interns yi nga xamante ñu fi am ñu ngi ah, jàng fayuñ dara ñu ngee jàng ay journalisme ñu ngee jàng ay autographe ñu ngee jàng lu baree bari fii nii am ñu ngi koo doxal ba dañ dee kooba programme su bari dañ dee kooba ay ngénte soo amee sa office thing si nii soo buggee advert loo bugg def rek casee ah, waaw Gambian Talents daal moom fi ah. Gambia ñoo ko moom askan baa ñu tax a jóg képp ku ñëw rek ah, pour Gambia dem kanam rek ñu bugga nañu liggéey ak yow yaakaar naa Folo Gambe Talent du léegi. Mhm. parce que Pao moom ko waxee. Mhm. nga xam around 2007. amoon na benn système bu ma doon liggéeyal benn Kumba Kumba Fall léegi mu ngi Amérique. xam moom mu doon liggéeyal gars mhm. na benn groupe bu ñu koy bu daan def tool daf daan ñëw su dafa daan waraan tooñ dama ne ko Kumba ana léegi journaliste nga bëgg a nekk and that stuff. ba xam nga rek soo loolu lu ma wane mooy lu mu gëm la parce que su ko gëmu doon. lu mm-hmm. doon aarab fu mu aarandi. Mm-hmm. parce que aarab su doon job yi nii. trust me mm-hmm. Gambia dafa naxari pour nga def fi dara. nga constant exactly so xam nga man 2007 2008 maa ngi xam maa ngi follow gaay. turu Kumba. benn système moo bokkoon waaye lu ma la dee wax rek mooy xam nga lépp looy def. Gambia fii soo constané si dara for five years. ten years. trust me personne la. parce que su nekkul poson da ngaa bàyyi parce que su nekkee xaalis la doo ko fi gis. Mm-hmm. ah ba pare dinañ la si tegal saagante yu dul jeex. Mm-hmm. Ah, xaste yu dul jeex. Mm-hmm. xam nga ñaaka looloo fay la. waaye leen lu dee mooy man li ma demal rek lu nekk soo ko commencé. yow xamal fi nga commencé rek waaye njëriñ bu moo am ak ñan la moo njëriñ doo xam te yéen si job bu ngeen nekk di def noonu job buy eetal ak buy xamal la. te mooy comme li leen di waxee gën si yéen mooy ki dem sàkku xam-xam ba pare ñoo di ba xamal. benen ni moy ma rafetlu lu time bi ngeen ma jox mm-hmm. gërem leen mm-hmm. di jégalu tamit nak xëy na ñi nga xam ne ñu ngi sétan mm-hmm. su ma fa dara lu nga xam ni like nit gis na ci bokkom wala nit fil na ne waruma ko wane waxee loolu ma ngay jégalu di doomi araba mo tax ma juum waaye su nekkee kàddu gi rafet na lolu mom yalla moko mo moko moo mun ma ko ma jubal liñ ci itérek moy ñu wax lu nga xam ne nii man dinaa si jànga keneen jànga si ñun ñëpp ñu njëriñu si. Hmm. waaw foog naa loolu la ñu continuer ginaa supportante ginaa def xol yi ñu nekk benn ñu enewante jàmm. ñu xam ne comme lu olof Njaay di waxee seet asamaan jarul buuxante. ku nekk foo taxaw rek nga xool wërsëg yàlla bi tam noonu la mel. jarul ñu xëccoo jarul ñu sëriñantu wante jarul ñu saagawante jarul ñu xeexante nañ xam ne ku nekk li ngeen nekk di def. man mun naa koo def kii def ko kii def ko te ku nekk ak jot si wërsëgam mm-hmm. so suñ ko defee rek dinañ dem jërë ngeen jëf ah, dabaax kooku mooy woon dabaax Malick ah, dabaax nag comme ni ma leen ko waxee rek lépp luñ doon seen bu si moom rek ak gis nañ ko mu nekk ki nga xamante ne am wax naa leen ni su waxee rek ñëpp dinañ si déglu ñu bari dinañ si jàngee lu bare bari xam naa ne leeral na fi ay wax te ñu bari jàngee nañ si moom loolu loolu atu kon nag ñu jël li ci baax am ah, ñu jëfee ko li ci bon ñu taajee ko ne leen comme ni mu ko waxee rek a ah, wax neexut te comme ni ma ko defee saa yi nekk fi pour xas kenn wala tooguñ fi pour xas kenn wala ŋaaña kenn wala wax nit lu ko naxari dañ fi toog rek pour waxtaan leeral kaf parce que Gambia suñ Gambia la ñun ñëpp a ko bokk foog ñuy toog di waxtaan foog ñuy toog parce que comme nu nga ko waxee communication dafa am solo suñ waxut rek am duñ xam luy góoon ak te askan bi dañ bugg a leeral yi dañ bugg a façon wax jotaa yu mel nii am ñu leen ko dee defee seen Tambambalu show seen xarit Gaye